ma billahi borom fayda billahi woo billahi dañ ciy tooñ dañ ciy tooñ dañ ciy tooñ dañ ciy ndeysaan Cheikh Ahmed Cissé neexu leen suma waaje neexu leen waajaa ngi fan. Gambia nee nañu yow. ak fan. Nigéria nee nañu yow. soo demee ba Ghana nee nañu yow. Angleterre nee nañu yow. nooy. mooy kan. dang ci tool di ci fayu. dang ci tool di ci fayu. laaj leen. dang ci tool ñoom ñooñu. léegi gis nga fi mu naan borom àndala foofu xola bu ci defoon écho mu naan àndala baatin bi bi maa ngi lay siyaar maa ngi lay nangu sa ziar te di la ko delloo mais nag tey. dama bëgg nga ne mezzo wala xës maa ngi lay ziar parce que summil naa la sa malaanu kiiraay taali. waxal yeah yow maa néega yi gën a call me xës o mezzo. tey tey tegil naa la. ala kuce ay waay DJ Fayo DJ Fayo DJ Fayo DJ Fayo DJ Fayo bu yàq woy bi réew nga ya ya ya tey boo ma nee réew nga dama naan laat yaa ma gën a réew de non sa maraani kiraay dama la koy delloo de bu fekkee nii nga bëgg a demee léegi tey ma delloo wàlla malaanu kiraay taali bi ayo ma teggi rek nga bëgg a ëppal ah foofu non li ma ci doon dolli man waaw wallaay kenn bañu ko waajaangi nii waajaangi sama waaji man na waayi waajaangi waajaa ngi nii réew maa ngi ki téye bës baa ngi ki nga xam ne ci sa barke Cheikh Ahmed foofu dégguma dégguma ma ci sa barke waaw waaw. la ñuy amee buzz. <laughs> seetlu nga jamono yi ci ginnaaw. waaw. biñ la tuddulee. Ah. ah. yow gis nga ni demeewul noonu. wa oh, wax nga dëgg ba pare faaw ñu tas ma. buñ la tafee. waaw ah, ba ma fasal mbaxana waaw ñoom buñ la tafee balaa avant wax sax day yéeg avant wax buñ waxul dara du yéeg. ah kon yow maa ngi seetlu de. damay maye ma maandu bi rek xam nga damaa tëdd njaaxaanaay nag. waaw surtout tey nga xam ne dañoo simmi sa malaanu kiiraay. surtout tey ay tey. sëñ bi léegi man dama lay jox sens est-ce que doo ci dellu ginnaaw. ah non non jaru ko. wuy ma. Hmm, ab dof nga woo ba mu ñëw ne ko yaa moom tànt bi de. tànt bi sa bàyyi ko moom. <laughs> maanaam damay wekki ndeyu tànt bi. ma ne moom sa bàyyi moom lu waay doon dafay yàgg tàntam bàyyi. waaw yow sëñ bi daa mel ni gaa ngi envoyé envoyé laaj ma tànt bi ci boppam. Hmm. ko doon dëkk. tibi tibi laay tebbi na mais sëñ bi nag tey li points yi ma indi dañoo xaw a takku tey damaa indi ay points yu takku macha allah. mais wuy ma. waaw. lu mu takku takku da nga koy safal ba bu saf nga tàngal ko ba mu tàng ñaf si kaane dóor ma ko ma tontu. waaw léegi balaa ñoo yegg foofu. Mhm. xam nga tey la tam xarit. waa léegi tam xarit nu mu ci arab. Angleterre nee na nu yow borom baati bilaay di nooy tam ci tooy yow ban ngay toroxal ci digg jég gori yene tam xare di ci fayu di fayu ban ngay toroxal fii ci digg gori tam ci tooy borom andala <laughs> lu ma la tontu ba ne la mooy kan <laughs> mooy bon <laughs> loolu de damaa pare yéeg ci oto bi di ree sam bopp. <laughs> ma ne la yaa ngi may wax loo xam-xam de yow mooy tam xarit asura mu ne ko waaye kuy asura xanaa mooy mooy ndaw si mu ne waaye yow yow assura tam xarit du yaa ma wax tam xarit ma ne la Lalu Sarr dafa yóbbu sa vidéo ma la assura nga du nit de mooy tam xarit ci arab nga ne ah ok. astaghfirullah astaghfirullah non damaa dem ci oto bi wër na yàlla di ree sa waaw wallaay kenn bañu ko waa jaa ngi nii Cissé sama waa ji mën na waay waa jaa ngi nii sama waa ji mën na waay Cissé doomu yaay Kalifa Sangaar Cissé ñaari doomi benn naar yi Cissé dugg loo xaali raay ba tudd ayu Kalifa yow balaa ñoo dugg sax ci asura mhm. est-ce que duñu duñu am ay points yu ñu leeral ba pare ndax xam nga yàlla yàlla dafa def mhm. da jël sa produit. Uh-huh. tuddee ko àndalaab muy sa maam. waaw loolu ñëpp xam ko. Uh-huh. ku ne sëñ bi ne àndalaa am na ñoo xam ne sax àndalaa lañ lay wooye waaw. <laughs> wuy soko soko soko mooy def demande pour yëgte live la koy dee wax ko ne ko. wuy ma am tëb moom am tëb moom ne ko fi ndaanaan yi di daje cuune amu fa palaas xam naa man mënut fee poser question mënta rek la te am nga plateforme yaa ngi wax moom soog am na plateforme nataal maanaam bu taalee na wax ba géex mook ñu ko bëgg ñu ko sopp amu ci benn problème waaye man su taalee na nekk spectateur bu ko mënee ci njëkk su mënul mu dem c'est pas méchant sama waa hmm. mais soo maa ngi lay bëggee sama waa ji sama gaañ la nag Fatimatu laay xaw ma lan waaw ah. <laughs> léegi sëñ bi. Uh-huh. li ma doon wax mooy àndalaa bi topp la. Uh-huh. am na ñoo xam ne àndalaa sax lañ lay wooye waaye ana ana ana àndalaa ana àndalaa buri maanaam. léegi àndalaa boobu bu la toppee bu lu jug rek ñu ne àndalaa. déedéet xam nga. te ñoom te ñoom xamuñu ne àndalaa dafa am lu muy lu muy defar riigu am lu muy def. xam nga xam nga. xayuwaay wu ne. Hmm. yiwuwaay la xajuwaay bu ne yiwuwaay la 11 september 11 septembre mm. bi twin tower in united states daanoo denn mm-hmm. l'islam la jullit la mm-hmm. trois cent quatre vingt quatre mille personnes tuub ci ñeenti weer du l'islam jihadis la te alxayda la mooy alkaayida mhm. rythme bu lislaam doon dawee wàññeeku bërit ñëpp ne àndalaaburi nit ñi ne lan mooy àndalaaburi mhm. billaahi wallaahi talaay jeexal naa ba yónnee yónneewaat ñu defaat commande parce que man yàlla may na ma ci stratégie de communication mhm. lu mbir mi takk taq suuf ma génnee ci or luy àndalaa buri ma ne la vingt cinq mille la daan jar waaye dix mille laa koy jaayee nga mos di nga ñëwaat dama lay iri boo ñëwaatee quinze mille ya manqué woon di nga ko redu di nga ko def nii laa jeexale génnee ko vingt cinq mille wàccee ko dix mille pour yokkaat c'est une stratégie de communication parce que am nga plateforme boo xam ne su ma fa waroon a ñëw doo ma publicité nga publicité ma gratuitement mm-hmm. te nit ñi dañuy découvrir bajob jigéen bu feeñee gàcce la waaye bay waaye la góor ñëpp lay wutal si ndax dañuy gis bajo bi bëgg koo ñam mm-hmm. la fait que àndalaa àndalaa bi bari moo tax bugguma coow li jeex ñoom ñëpp dama leen di provoquer ne yokku leen parce que di moom nga wax àndala rek mu arrangé ma man mm-hmm. moo tax balaa lii di xew dama daan créer bës pour mën a jaay léegi benn buzz amul ma teew ci benn soirée yëngal fa bu ma xëyee door a jaay nitu intérêt laa di dox ci sumay intérêt suba ngoon guddi bëccëg àndalaa actuellement dafa jeex te la ma doon waxoon hmm. laa waxaat ba tey hmm. garanti laa ci def ku jënd gisoo ma delloo la sa xaalis képp ku jënd àndalaa buri gisoo si résultat bi ma ci wax mhm. dama lay delloo sa xaalis bu ma la ko delloowul capture bi nga jëndee mhm. résu bi ñu la jaayee ak butéel bi exposé ko ne man jënd naa naan naa gisuma résultat woote naa joxuñ ma suma xaalis lii de doo ko dégg ba àdduna tukki parce que kiy jéem ak mën du benn taman mënantuwuma ak kenn damaa mën hmm. mais nag guerre ci communication boo ko seqee ndaanaan bu mel ni Cheikh Ahmed Cissé faaw nga xam fooy teg sa tànk hmm. sinon dama lay jiital lu wadd ma for duma la may dara te loo ma may ma jël parce que doomi aadama yi su déglu jotee dinañ déglu mais bu jëfee jotee la leen arrangé rek la ñuy jëfee hmm, bu doon loolu la Amadou Ba du dajale mitin nit ñu bari yi carte jot jomaay ëppale ko moom mi amutoon essence bu doy ku taal ñu seetaan la ku wax ñu déglu la mais bu décision jotee la leen ñor ca la ñuy nekk. bala koo xam nga taal sa live ñu occupé dañuy dem doxi ko suñu seet si dagg-dagg yi wala YouTube foofu la jamono toll. Mhm. te ñaar mënuñoo bokk résultat. kuy wut vie kese. Hmm. ak tapotage ak koo xam ne su vi yi jógee rek mu dugal publicité am jaay njaay mi toppatoo boppam buñ génnee mooy dàq sañse mooy dàq tukki mooy gën a faj bu muy gàcce bu joxe jotee mooy ëppale lu mu joxe parce que wax ak liggéey ñoo mënta am résultat te duñ am résultat ba adduna tukki TikTok ñaari waxtu nga may gis ma toog live su jeexee dootoo ma gis vingt deux heures de temps yëpp maa ngi ci suma intérêt lan mooy doxal suma mbir mais topp live sur live di wër du man àndalaayu maa ngi sant yàlla bu baax mi ngi dox te tey la gën a dox business bi tey la gën a dox mm-hmm. mbës nga commencé benn carton mm. deux mille dix neuf deux nga dem ba réew mi yëpp xam sa garab ba mu nekk number one hmm. cuuna defu ko manka defu ko neen defu ko xel ak liggéey ak hmm. nga raamee senegal dugg Gambie nekk fa number one dugg Mauritanie jàll Maroc ñëw Amérique ñun mën nañoo liggéey dépense mais mënuñoo liggéey xaalis Peugeot kañ la woon Mercedes kañ la woon Oréal diw kañ la woon Chanel kañ la woon den koy donnante man damay organiser loo xam ne tey su ma doom bu ñëwee fekk fi baayam lam doon liggéey du jaaree pour faj dépense ak may artiste yi ñëw toog loolu laa bëgg nga comprendre que ki may xalaatee man ak fi ñuy xalaatee du benn te dama bëgg nga retenir suma benn kàddu. Hmm. yàgg naa wax ne bés dina ñëw Sénégal duñ ma dégg parce que dootuma wax wolof wolof dafa limité te éloquence bi ma am niveau bi ak xam-xam bi duma ma toogate sax dinaan nga ne mane ne ci live damay nekk beneen level ñu may xool feneen falaa rêvé mais pas ñoom li ñu rêvé boo ko seetloo bëgg a siw ak bëgg a xew dina leen dugal ci ku siw rek ñu tàppaas la xuloog yow indil la lu ñaaw pour damm la mën faa toog xàccoowuma loolu damay jaar TikTok pour faj benn soxla dama koy bàyyi du pour man mais nag bala ma bàyyi ku ma bugg a yem naa téegal sa lu bon ba pare ba ñëpp xam ne maa mën ma jéggi la dem sëñ Abdoulaye Lahat na ku ñàkk mën a xeex moo gën mais ku dugg ci xeex jekkali waaye suñu bët yi du benn fa ñuy xool du benn rêve yi du benn dox qualité yi sa ñoo dul benn su ma benn jabar dafa ma wootee mu ne ma dimbale ma ngir yàlla bul di tollale sa bopp ak ñi ma ne ko déedéet dafa fekk ne ku fekki mbaam poox ci potoxa di xeex ak ñoom faaw nga takk ban te boo fa yàggee sax noonu bu ñëwee na la yàgg mbaam pooxee yam ndax yéen ngi xeex xoolal am na ko inscrire juste pour mën a commander dégg nga <laughs> bëri fitna la ko xam nga ko mooy suñu waay <laughs> ku la saaga woon maanaam na jaral na ko moom mu mën a waaw mu mu mu dafa bëgg a écarter di di pëtëxlu waaye bu ndërmeeloo ñu ndërmeelu ci moo xam mais sëñ bi waaw sëñ bi ku jug na àndalaa ndax mbir mi xew fan yi mbir mi xew fan yi nga xam ne yaa yàlla mba réew mi ko wax mu ne àndalaa àndalaa mais àndalaa lu muy jëriñ àndalaa day dolli kàttan mhm. àndalaa day tax nga mën a gere dëgër këcc gérer une heure de temps deux heures de temps xam nga àndalaa buñ mhm. garabu cosaan la boo xam ne ci ay meññet ak reen leen ko jëlee defar dafay génne stress maanaam lu la mënti naqari boo guuxee àndalaa tëdd na la boo yeewoo fàtte ko dafay dagg sinusite ci bu ci bakkan boo ko naanee sa bakkan bi day tàng dafay raxas biir génnee doxati génnee ngelaw li génne ngelawal yi war naa koo naan ba pare dafay raxas deret génne suukar si muy jabet génne xorom si muy hypertension dafay yee ay siddiit ba pare di génnee coono coono mën na rey doom aadama mhm. ba pare ñetti façon gaaw a daanu moo am wala néew kattan mhm. ak hémorroïde da koy faj ku dul gaaw a koddal <clears throat> mm. koo xam ne bu koddalee du dëgër koo xam ne bu koddalee dina dëgër waaye fu bopp koy bu tooyee mu daal mm. hémorroïde ñaar la interne ak externe externe ci muuti gi lay génnee ngay dem toilette léegi léeg di ko buux muy dugg interne bi ci biir lay nekk ci góor la gën a bon moom bii rek lay faj amul solo ak régu li muy def léegi nag ànd laa buri bii bi mu ñëwee hmm. mbooleem garab ci réew mi déggatoo leen dëgg la ba koy publicité dafa danga naan moo gën àndalaa faaw nga tudd àndalaa hmm. léegi nag sëriñ si nekkoon ci ginnaaw di jaay garab ma ñëw suul leen dañuy seeti ay doomi xaraam ne yàq leen àndalaan ndax ñu mën a jaay moo tax ngay gis tey nit am problème ak Cheikh Ahmed Cissé bàyyi Cheikh Ahmed dem attaqué àndala ku am xel li nga xam lan moo tax kii di attaqué àndala buri mooy ñett benn iñaan na ñaareel ba amul métier ñetteel ba am na ku nekk ci ruux pour àndalaa daanu mu mën a jug hmm. waaye nag yàlla daf ma dimbali lu mu gàtt-gàtt am naa junne client bi ma commencé ba tey senegal bi may jaay ba tey xam nga war naa am mille client Mm-hmm. ok léegi vingt cinq mille francs fois mille loolu vingt cinq million su fekkee ne loolu laa jaay ci at mi weer bu dee dinaa am deux millions quatre vingt trois mille loolu du salaire. ah ëpp na salaire sax dama la bëgg a wan rek chiffre d'argent maanaam lu mu gàtt gàtt xel mën naa nangu ne. bi ma commencé jaay laa buri ba tey junney nit war nañoo mën a jënd suma garab confirmé ne baax na junney nit. Mm-hmm. xam nga ëpp na ko. Mm-hmm. vingt cinq mille fois mille vingt cinq million cinq millions boo ko divisé par douze. deux million quatre vingt trois mille chaque semaine la doy na ko. moo tax duñ ma fay na ma waxal duñ ma fay na ma noppi. kenn gàdduwut ma yi tamit nag ku ma séqal teranga bu ma xamee sa loxo xam nga suma loxo. ngay xarit ngay mbokk ngay jabar ngay doom la waa léegi bu fekkee ne am naa deux mille personne xam nga ñaata la ñaata la cinquante millions trois mille personne soixante quinze million quatre mille personnes yuy jënd suma garab ci année bi def naa chiffre d'affaires cent millions waxuma loolu laay am de mhm. li may am yàllaa ko xam saa yu ma ko joxee ma gërëm damay lay wax chiffre d'argent mhm. bu dee quatre mille nit jënd neen suma garab ci weer bi ci at bi at laa la wax de waxuma la weer de mhm. atam lëmm ma jaay quatre mille sénégalais def naa chiffre d'affaires cent millions ba tey néew ma am naa alal de néew ma loolu laa am dama lay wax chiffre mhm. loolu boo ko multiplier par douze weer bu jot nga am quatre millions weer bu jot dinga am quatre millions francs CFA <coughs> léegi 4 millions boo ko diviser par 30 jours chaque jour 133 mille francs ngay am waa doyut gor. Hmm, bu goree. chaque jour 100 mille francs. Hmm. doy na gor de. waaw bu goree. waa loolu boo ko amee te am ñuy liggéey. am rigueur am fayda xam li ñuy def doo biram bu muy dox. Ah, moo tax ma lemlante su may loxo na leen oh ñu ne waa ma ne Amérique fii jaayatuma ñu ne ma looy def ma ne leen bérébu muy dox tëdd muy dox mais gis nga moment boobu may def loolu maa ngay jàng di waajal màggal gi ak gàmm gi wax ci yonantoog sëñ Bamba lu nopp mësta dégg moment boobu maa ngi jàng ji GED pour dem université jàngi parce que TikTok du liggéey réseaux sociaux du liggéey nit day màgg taa day jeex ku xew di nga xeew ana Souleymane Jules Diop mañ daan déglu da ko koo déggati. déedéet. Kouthia mañ doon déglu da ko déggati. déedéet. tey Cheikh Ahmed moo fi nekk moom la fi yàlla teg. Mhm. bés dana ñëw kenn dootul ma dégg. ñi naan aka amoon xam-xam ñi naan aka reewoon ñi naan dakoo mooy ñi naan moom a dimbalee ku ne ak sa opinion. Mhm. mais plan de vie da koy te ci loo ko wut lu mooy xam-xam ak xaalis rek perte nga ko. nii lay xalaate man nii lay doxee yàpp xalaate ñoo dul benn si bu loolu weesoo mm-hmm. ku ne àndalaa am na riigu am na mm-hmm. soq am na doy waar gaay buñ koy confondre ñoom ñi ciy wax nañ jéem a xam bu ci nekk li muy doon comme ça bu ñuy bu ñuy wax ñuy leeral gars yi di xam ku ci nekk ban nga war a jënd hmm? na ci baax de ah. no su fekkee ne su fekkee ne den doon wax rek te yàlla tax mais den leen fay jàkkati garab yi ñoo leen fay àndalaa moo tax kenn jaayatul foog nga comprendre stratégie de communication maanaam tey nit ku normal boo jotee nit moom nga jotee. mais di nga tudd business bi te jaayoo. lan lan moo la loolu lu jar a laajte la. ok mën nañoo génn foofu dem ca dem ci tamxarit gi. tey la mhm. sëñ bi bëgg naa xam lan moom mooy tam lu waral tam fu mu jugee aada cosaan la diine la lan mooy baax baax yi hmm? lan mooy ngëneel yi bu dee am na ci ba obligation la wala du obligation taajaboon gi ci biir lépp daal tey bëgg naa koo xam quoi. xam nga fukki fan mooy ashra ashura ñu ngi tibbee baat bi ci fukkeelu fanu weeru muharram muharram weer la ci weeru jullit ñi mooy weer wi njëkk fukkeelu fan bi mooy yawmu ashura mooy fukkeeli fan noonu la tudd olof tuddee ko tamxarit léegi dafa am nag ay mbir yu ci xew ba tax mu am solo ci ñun gis nga maa ngi doon wax ma ne alquran dafa am aaya yu ñëwoon am aaya yu leen folli farata woon ci bépp jullit mu woor mu woor bésu tamxarit ba bi weeru koor wàccee ci leen ko bàyyi léegi nag mu am ngëneel loo xam ne woor bésu tamxarit dafa tolloo nga woor atu yàlla ci bésu tamxarit dafa tombeeg nga def mbaax ci at bi yépp kon moo tax muy xaddis bu wër ak sunnatu muhammadiya ne neen di woor bésu tamxarit waaye xam nga lan moo gën a yéeme ci tamxarit. muy lan ci la yàlla musaloon banni Israaïla ci Firawna mu réew mu mag mi. keroog la yàlla xottiloo yonentu yàlla Moussa géej gi fukki mbedd ak ñaar mu jaar ci mucc Firawna xale ko ba yow ma ne haza ba bis bi Firawna dafa torox keroog la yàlla may banni Israaïla ndam lu rëy loolu ginnaaw ñeent fukki ati coow wala ñeenti téeméeri at wala ñeenti junne at. musaa sonn firaw na réew ba beew ne inni yaa na rabbakumul ala man daal dëgg-dëgg maay yàlla ji gën a kawe man man firaw yàlla jëree du dara man may dara fala réewaa ngeen tolloon yonent yàlla Moussa bisu tamxarit la amoon ndam lu rëy hmm. xam nga ak lan ak lan ñun ñëpp ñu ngi dajewaat ci yonent yàlla Noox ci maawu tuufaan ñeent fukki fan la yàlla ji doon taw kaw ak suuf inondation six mois nit ñëpp dee mala yëpp dee ba mu des ñu nekkoon ci gaal ak nooxu gi gaal gi mu ngi teer yow mu asura bi si tamxaral la gaal gi teer jaan génn sëy jaan jaani jurante ba fii góor ak jigéen génn sëyante ba fii janax ak janax mbott ak mbott ku gëmutoon yàlla keroog ci animaux keroog nga dee yàlla créewaatul dara ginnaaw loolu lépp ci gaal gi te kenn matul sa morom alquran moo ko wax loolu boo ko waxee am jàmm benn ñaan la xam nga lan la salaamun ala nooyin fil alamina inna kazalika najisil muhsinina alquran la akbar boo nekkoon ci biiri jaan ne salaamun ala nooyin fil alamina inna kazalika najisil muhsinina dara du la laal xaj du la màtt alquran la yàlla ko wax ndax noox dafa woote ne ku gëm yàlla ñëwal rek segg yi di ñëw gaynde yi di ñëw mu tiit jàkkaarloog borom mu ne ko salaamun ala nooyin fil alamina inna kadhalika nii muhsinina mu ne ko jàmm ci noo ci mbooleem lu ma bind jàmm rek nga yam ku ko jàng am jàmm ci mbindeefu yàlla yi alquran la xam nga ndam loolu noonu yonentu yàlla noo am. mais booy wax alquran ni nga koy waxee muy neex. waaw dafa neex suma biir xol bi dama koo xam. mbës kuy wax mooy maanaam ku xam mooy wax lañ xam. maanaam da ngay da ngay wax ay baatu alxuraan mu mel ni dama koo xam. mu muy dugg. waaw xol bi la. maanaam suñ xol yee xam nga yow defaruma la ci di la jàngal dama lay defar ci mbëggeel danga may bëgg ma lay bëgg ma lay yéegal da ngay toog yàgg rek nit tooñ la nga xam ne mën nga koo muñ nga toog ba mu yàgg rek am soxla affaire yi ñëw loolu la ñu doyee sëriñ moo tax su may wax xam-xam damay wax rek mu mel ne xamoon nga ko. Mhm. fekk amour bi defar naa ko organiser ko ba amatoo sago léegi bu may wax rek da ngay capter c'est ça c'est ça l'amour quand même donc. mais ñaan gi waxaat ko waxaatal ñaan gi te baaral ko salaamun ala nuuhin fil xaalamiina innaka zalika najsil muhsinin tub kii raasulee laay salaamun salaamun ala nuuhin ala nuuh fil aalamiina fil aalamiina inna inna kazalika kazalika najzil najzil muhsinin muhsinin lii mooy alxuraan. waaye lii neex la waaye. eh wax yàlla du caaxaan de. déedéet abadan. li li ci xol lay dugg. mais maa haza lii lan la. moo jaaxaloon jomaay bi mu bale gi mu ko. <laughs> ma ne moo jaaxaloon jomaay bi mu génneeg bale gi. waaw yaa ngi woon fu baax. loolu laa la wax ne. Mhm. bokk na ci li tax bés bi rëy. Mhm. am sol mhm. suma ordinateur lu muy def nii moom luy problème am dem na maa ko gën ëpp jot. bokk na ci li tax bis bi rëy mooy yenentu yàlla Nuux samaam suñu maam mm-hmm. keroog la wàcc ci gaal gi ginnaaw ñeent fukki fan taw kaw ak suuf ndox mi jug ci suuf di ñëw ci kaw mm-hmm. juróom benn weer la àdduna bi yëpp indoon ne ku duggul ci gaal gi rek yàlla dalaa raatale ma dugalal la ñaan boo xam ne boo ko waxee mucc mm-hmm. xam nga leneen ni lan lan mooy lan xare Karbala xareb Karbala bañ reye woon sëti yàlla muhammad bu sallallahu alayhi wa sallam ca iraq bi si tamxarit la tey boo demee iraq dañuy jël jaasi di dagg seen bopp ba nàcc ngir fàttale ko Ousseynou wala Hassan hmm. waaye ci xisa bu wér sëtu yonent la sallallahu alayhi wa sallam aliway bàyyi ji Fatima yi ndey la Ousseynou la wala Hassan xam-xam da cee wuti waaye li wér te door daanu mooy sëtu yonent la gis nga beneen bi mooy soo joxee dërëm ci yow mu asura hmm. at bi yëpp yàlla day bind bët bu set na joxe nga dërëm bu set joxe nga dërëm ba at bi jeex allahu akbar ah loolu cuq na di maanaam tey nii rek nga wax benn laa ilaha illa hmm. bu set ñu bind la laa ilaha illa nga woor bët bu set ñu bindal la woor te woor bés bi daf lay jéggal bàkkaaru at li nga kaa li nga fen li nga njaalo li nga def yëpp yàlla da koy dajale ne ma bàkkaar la woon ñu ne waaw ku ko war a togg nit ñu ne ko yow yàlla mu ne baal naa kenn du ko laaj pourquoi kenn du ko yàlla bu mu demee nii sequt kooku yàlla bind kenn du ne ko lu tax déedéet sequ ko kenn Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. kon lii ma la wax yëpp njëriñ la ci bisu tamxarit boroom xam-xam yi nag wax du alquran du sunna wala xaw ma ko ci sunna ñu ne bés bi la yàlla di bind liste bi war a dee. Mm-hmm. ñi war a feebar ñi war a accidenté ñi war a dem kaso. ñu ñëpp bés bi la yàlla di dogal ba pare jox list bi malayka te mbës boo nekkee ci liste bi nomba wan ma ne liste bi war a dee boo ci jiitoo dina ma métti de. déedéet déedéet déedéet déedéet li ngay kafe nii bu ko waxaat moo lay dégg daa bëri jikko de. maanaam malaaka bi jot liste bi tey ñu ne mbës suba suba nga war a wuy gis sa borom nga gis ko fi miste fii laay toog. naan ak a baaxoon te mën a te woyof Cheikh Mahi Cissé mu ne dafa benn dëj bu mu demoon. Hmm. benn waay bëgg a wax ñu ne kenn du wax mu ne may leen ko mu wax waa ji forcé ne ku baax la woon. Hmm. buñ daan bulooti wala ji moo ko daan eb <laughs> ci ne ci la xam lu tax bëgguñ waa ji seede bu naanaan ba mu des tuuti boo ko ñaanee mu may xol bu woyof la yor te niw baa ngi tëdd ñu war ko ma ko te nii waa maanaam daal kon mën nañ cee jàng ni euh, tamxarit ci diina ji la bokk du lu du du du bidaa du du du cosaan mais daa bokk ci alxuraan. waaw ndax bés la bu yàlla fonk ba def maanaam ci la yàlla di wanteer mbaaxam. wooral benn fan ma jéggal la bakkaari at. mayel benn dërëm ma def ko junnee dërëm yonent yàlla Moussa yonent yàlla noo am ca ndam sëtu yonentu ñu toroxal ko ci rey ko ci maanaam bis bu dajale naqar la ak mbégte moo tax taajabu waaruwu leen olof ne taajaboon óolle mooy ndax waaruwu leen yéemuwu leen ci bés boo xam ne am ngeen ci ndam waaye am ngeen ci naqar ndax sittu rasulillahi ci leen leen rey waaye da war a jooy wala danga war a yéem. loo war a def taajabun li de yéeme na ñoom ñu jël ko na taasu ko taajabun. Ah. ndax yéemuwuloo ñu naan taajabun ole taajabun yéemuwoo nga ne yéemu naa mais bi ci askanu ngéwél gi ñëwee ba tef ci tama bam ci la yàqu mu nekk ni bugguma sax ku ma naan yéemu ni xanaa ma nafsee bi rek fecc moom <laughs> mais mais cosaan boobu ñu ci indi ci biir taajaboon bi ku jigéen góor ki di sol yére jigéen ku jigéen ki di sol yëre góor yete ak yetey am yëpp dem ci kër gi fecc ñu may la ñu jox la yooyu noonu yëpp kon aada la den ko fi fekkoon mu doonoon aada ci ñun balaa diine lislaam mu doonoon lu rafet pour góor ñi xam ne dañoo war a yërëm jigéen ñi ndax buñ toogoon place yi jigéen di ëmb di gis regal dana métti lool jigéen ñi xam ne place góor dafa diis joxe dépasse gàddu kër lu métti ñu daw ci yow te yaa ëpp métti ñépp nga nuru nuru lu góor ma nuru nuru lu jigéen ñuy feccalante di woyalante initiative bu rafet bii leen ci amoon ñun suñ aada bu bés bi jotee jeexee góor nekk góor jigéen nekk jigéen ñu dem nag ba diine lislaam ñëw ñi ñu indi diine bàyyi ñu aada bi waaye diine nanguwul góor guy jigéen jigéen lu nanguwul jigéen juy góor góor lu diine daf ko bañ ci lu mën a doon lu dut ñu di la wër ne buñ la jàppee rey la nga solu mbubbu jigéen ngir mën a muccale sa bakkan lislaam may na ko hmm. waaw lislaam dafa sew. Mhm. des koy xam pour mën cee wax. tey bu ñu doon mbës lañuy ñuy xaar fi bu ñëwee ñu rey ko solal sa coquette bu baax def sa sëbu. Mhm. wàccee sa sikkiñ naan salaamaaleykum na ngeen def tonton ba mucc du doonaat góor am yàlla jëfewul. yàlla méttilul ko daal. di di nii moo doon taajabun. waa ñu ñëw ci suñu waxtaan ñu noonu aada buñ yàgg di def waaye du sunnatu rasulillahi te wérul ci alquran ne góor ñi neen jigéen jigéen lu jigéen ñi neen góor góorlu loolu wérul amul fenn waaye nag suñ aada la woon bi foofu macha allah lii hmm? mooy bu ñu lekkee cere ji ba pare ba ca ëllëg sa ca fajar ga ñu hmm. jël bool bi ñu ko lekkee woon di ko dëpp ñu ne dañu ci fës ñaan suñu soxla waa loolu aada séeréer la woon ñoo ko moomoon ci leen daan ñaan nawet ñaan ci jàmm parce que balaa ñuy jaamu yàlla yàllaay maam ñi ñoo fi nekkoon den daan tëgg ka fecc yàlla yu ñoom yàlla noo stress la amoon quoi hmm. aada la waaye xam nga ne allahuma ak tëgg ak paan utee neen hmm. aadala la mais bu dëggoo ci xol yi nag dafay doon mbokkaale bu fekkee aada rek pour kafagree société bi lu ñu mën a amee jàmm rek baax na. Hmm, waaye nag ay sëlmu sëlmu sëlmu sëlmu ci raxasu beeg yooyu noonu yëpp. yooyu yëpp aadala la ay tegtal la lislaam bañu ci dara waaye bu demee ba nga gëm ne loolu la mën a musal nag bokkaale yàlla day ñëw. mu daal di araam. waaw su boobaa dafay xaraam mu talaxan moom day xaraam bàkkaar yu rëy la. waaye daal bu fekkee yaa ngi ko jëlee loo xam ne zonzee fël-fëlaale ak yooyu. waaw saaxuraan ak yooyu comme maa ngi ñu ko jàppee nanditama loolu dagat. ok parce que yow gëmoo ne tëgg bool mooy faj aajo. gëwuma ko. gëmoo ne raxasu mooy tax doo am accident. déedéet donc ça va islam danaan ah, doxal. Ah, doxalal islam am problème de moom da lay laaj police la rek. lan naan waa li nga def ni loo jublu nga ne ko ni mën na la avancer wala noo arrêté. Mhm. islam c'est pas méchant. pas

ok dama yaakaaroon dafa am ñoo ñooy napp sax mais yow parfois dañ lay dañuy dégg sëñ bi ci ay defante defante lañ ko mën a tudde ñi ngay mm-hmm. defanteel dëgg-dëgg man ni ma jàpp ne ñoom ngay defanteel lu tax comme ñoom ni ñu lay tafe yow doo leen ni tafe noonu li tax ñu lay tudd te yow dooy bëgg di tudd seen tur parfois na nga tudd leen mais li ëpp dooy tudd seen tur lu ko waral danga leen a ragal danga leen a tàppet dangay bañ la daloon Sonko ci mambay ñaa dal wala wala lan. non même pas c'est juste jamono bu ne dafa am kuy xew. Mhm. wax dëgg yàlla jamono bi man maa xew munuñoo waxoon na la ko mhm. munuñoo toog te tafuñ ma munuñoo toog te waxuñ ci man parce que amuñ lu ñu wax amuñ vie nit ñi ñëw seetaan ngir man su ma jóg la preuve bu ñu waxul ci man nit ñi dem doo fa dem pour jëlee fa xam-xam doo fa dem pour jànge da ngay dem pour déglu reetaan léegi nag koo xam ne ci yow lay topp di la taf tafaka wax ci yow pour nit ñi mën koo déglu danga koy may loolu hmm. ñaareel ba su ma ay nit ñi ma bëgg man nante tey buñ gisee may wax ak ñoom dañuy mer li ñuy mer mooy man pourquoi ma war a wàcc ba niveau boobu di wax ak ñoom ñu benn ñoom sax xam leen ko koo ci waxal mu ne la dafa am xam-xam ci kaw ak ci suuf xam nañ ne duñu benn taabul ronde kaay leen ñu waxtaan xam-xam nit ñi déglu amul benn attaque personnelle wax xam-xam rek ñoom mënuñ ko te défier naa la na la invité leen ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ne kaay la ñuy waxtaan rek ci xam-xam benn question ñëpp di ko toj pour wax lu dugg ci boppi askan wi munuñ loolu pour ñu am vie tey mi Guissé la ñuy faral. suba Wally Seck suba Viviane ñi bëgg Viviane ñëw aimé seetaan yow amoo vie Viviane moo am vie mais toog nii di live quinze mille personnes di seetaan tafoo kenn di toj xam-xam munuñ loolu moom la Maodo Malick doon wax boroom làmmiñu rëy yi ci xel yu gàtt yi hmm. loolu danga leen koy may moo tax man suma ngor suba dignité ak suma classe mayut ma ma teg leen suma ginnaaw écran pour nit ñi ñëw man la nit ñi bëgg sopp ma ma dugg seen xol yi neex ci ñoom ñu may wër di ma namu loolu maa ko fa am lu xeere laa lay tegal ni loolu maa ko fa am moo tax ñoom dañuy sawar ci taf ma wala sax man la ñuy annoncé live pour nit ñi ñëw seetaan parce que li leen gën a métti mooy seen bës bi ma nangu te man soxlawuma loolu man damay business ñoom bës bi dañ koy dund man dama koy businessé man lu ma nit ñi seetaan seetaan bu ma coupé ne jaayuñu rek tayal naa mais buñ jaayee rek ça va parce que ki lay déglu daf la fan wala dafa am jot wala dafa bëgg a jàng su amul jot du la seetaan mhm. te am nañu toog seen ruq di ko dëbb kër gañ lay seetaanee ñoo ko moom oto ñu lay seetaanee ñoo ko moom yow ak la nga sol ak la ngay wane mën neen laa jënd te demuñ internet kenn saagawut seen ndey kenn tafu leen kenn xasu leen mhm. xanaa bëggoo bés nag ñëw nga toog yow di seetaan nit ñi ñuy kaa mhm. rêvé wuñu loolu ñoom dañu bëgg toujours rek nekk devant di am ay xaritu bees ki suma xarit la kii miin naa ko kii nangam am naa nangam nangam man I want to be me dama bëgg doon man dama bëgg a marqué suma empreinte ci suuf balaa may dee donc man duma leen taf bugguma sax di leen tudd mais léegi-léegi duy ñàkk ko mhm. mais dinaa dinaa promettre nandi tey dara mhm. dina leen multiplier par zéro duma tontu duma wax ba pare li may pare ba dóor ba mu dal ñu xam ne doole yemul ki mhm. kiy jéem ak kiy mën du benn man jéemuma dama mën ci li ma nekk ak li may def di dimbale jigéen ñi di leen wan sëy di kaf ñoom di ree ku ñu xeex ku ñu def injustice ma xeex di teg information yu leer ci kaw taabul ñoom dañuy bëw bëw bëw bëw rek bu ñu sonnee bàyyi c'est ça loolu mooy tontu bi yow li xew nii yëpp ñu koy téll télle ko wax waxe sëñ bi ngeen dara safu la ci dara fareegewu la ci. xam nga wax bu jugee. Hmm. den war a seet kan moo ko wax. rek bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ma yónni. Hmm. maamam daf ne ah ki ko wax mastafen de. fait très waxam la mastafen maa ko yar dama ko xam. mu oo ba mu ñëw mu ne ko wax ma bu fekkee nguur la ma wax arab yi ñu fal la. Hmm. bu jigéen nga bëgg ñu jox la jongo may naay si ngay time te may ñu jàmm bu dee alal ñu dajale jox la mu ne ko maa ngi gën ci ku bind suma bakkan buñ tegoon weer wi ci suma ndeyjoor mu may lakk ngir sedd ñu teg naaj bi ci suma càmmooy mu may lakk ngir tàngaay na ma bàyyi li ngay wax duma ko bàyyi yàlla ma yónni te kenn rek la mu ne ko doxalal sa li sa diine ku la laal ma doxandee lii la ko waxa ah. firikat yi ñoom dañoo xaw a yor da ko ne ku la laal ma doxandee demal nga doxal sa diine nice yonentu kenn musu koo laal ba bi maamam gaañu ci leen ko door di ko sonnal <coughs> yaa ngi dégg mm-hmm. léegi kan mooy wax ci man aadamoo mi toog àdduna yëpp seetaan ko mu simmi kooyam yi ne maa ngi nii nii la ma yàlla bind kii toog di génnee ay bajo nit ay koy nit di ci waxtaan ba looloo ko may tur koo koy wax ci man loolu bu ma safee ki gën a tuuti si suma famille daf ma war a tër rey ma ma dee ndax légitimité maanaam dafa am ku ku légitime pour wax am ku légitimul pour wax bu fekkoon ne ñi am dara ji ci réew mi ñu tekkee dara ñoo koy wax war na ma métti ndax sa nawle bu la xasee tam méttiwul la amoo jom mais koo xam ne matut la noonu matut la nawle da nga gis Adamo di tontu ñeneen di wax ci ñeneen parce que daf may dama koy yéem man beneen bi kan mooy wax ci man soo ko mi nga xam ne moo doon masturbe ak jigéen ba koyam feeñ mintu génne koyam mu génnee bajo soko mi nga xam ne nijaayam moo toog ci internet bi di xas ndeyam ji ko jur nga xam ne yàgg na Espagne mu nga sànni ndeyam duus bu baax bu muy prouvé sax mënu ko am mu waroon a am jom at yim am jéem a liggéey ba tekki dimbale ndayam génne ko ci coono mooy bàyyi kooyam moom ñëw di wax ci man loolu warut maa mun a saf Kaliphone dama ko waxoon ne danga am feebar buy wàlle mu dem def dépistage sida wane ko musuma génnee suma gémmiñ wax ne dafa sida vidéo boobu kenn amu ko kenn du ko génne dama ne dafa feebar feebar buy wàlle te xam naa li ma wax billaahi wallaahi tallaahi doom ji mu tuddee Doro Gaye jurul ko camerounien moo ko jur billaahi wallaahi tallaahi barke Cheikhu Tidiane du la wan kayiti juddu xale bi ñu bind fa Kaliphone Baba li amul turam nekku ci daf ko bëggoon a fase mbokk yi ñaan ko pour kayit doom ji mu tuddee Doro Gaye na dem defi test ADN wane ko ni ma ko tuumaalee feebar mu dem def xam nga dama ko tuumaal ne dafa feebar mu dem def test daa wane ko ci live na dem defi test ADN wala mu wane kayitu juddu doomam fu ñu bind xale bi bind turu yaayam bind turu su boobaa ma xam ne man kat fen na na jël doom ji def test ADN ba ADN bi wane ne moo jur doomam ki mu tuddee dooro juru ko suñ bi wax ji wax ji rëy na de. te dama ko waat ci yàlla barke Cheikhu Tidiane mi ma bëgg ci suma biir xol billahi lazi laa ilaha illa huwa Kalifone bu génnee kayitu juddu fu nekk moom ak xale bi ma tëj suma compte bu defee test ADN ne moo jur doom ji mu tuddee dorogee ma tëj suma compte man yàgg naa laa wax ne la ragal naa say wax ndax doo waxantu mais est-ce que tamit lii lu jar wax lu jar wax la àdduna di ko dégg. ba tey waxaguma de maanaam man dóoraguma kali dama lay expliquer ñiy wax ci man mooy ki nekkoon Sénégal di katt ci jigéen ñi ñuy katt jabaram France. astafurlah. kooku mooy wax ci man loolu la man waxaguma du la wan kayitu juddu du la wan test ADN ne doom ji moo ko jur te xoolal xale bi mus na koo wane live. nga xool ko bu baax da ngay xam ne kii du moom kooku du moom te <coughs> kay ma may la benn exclusivité mm, may ko gaa yi kay bon kay booba dara coowu Adja Thiaré fi Adja Thiaré mooy lesbienne bi mu bëggoon a katt mu bañ ah la ca Sénégal ba ko ci pooj ko ba kanam gi néew ñu tëj ko ci kaso. da nga fekke woon ko. ñu jëloon la ci moom parce que xale bu tiitee ci xare baayam lay woo. ma dem soutenir ko maa ngi fekk ñu ngi ko ñuus ba kanamam gaa ngi toj mu ngay am dagg-dagg lu ñu waxoon ci test bi du dendoon Adja Thiaré dafa vierge hmm. mësta vierge Adja Thiaré Doro Gueye Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur ministre de la santé ñoo teg dil ak docteur bi ne li mën a musal Californie mooy ne Adja Thiaré dafa vierge ñu def rapport ne dafa vierge mais Adja xam na ciw xam na caa xam na ca ca cas nangu na ne lesbienne la da doon laalante ak jigéen te den ko njëkk a violé hmm. Doro Gueye moo doxal Californie ñu defal ko ne Adja Thiara vierge la mais ñun xam neen vierge naq jigéen buñ ko xoolee rek xam ne koy mus na ci dugg wala dugg ci koy du fen Antoine Félix Diome ministre de l' intérieur ci tànkam ñu contacté ministre de la santé docteur bi ne bu ci waxee moom dina am assurance ñu génnee ne Adja Thiaré dafa vierge ñu ne dafa vierge mësul vierge ci leen ko yóbbu tribunal àtte ko ne dafa dóor jigéen tëj ko si mois sur si benn mois la tëdd dama waxoon ne mënta dellu France mhm. keroog bi passeport am amee problème Thierno ba ak Doro Gueye récupérer passeport fay coow li moog Doro Gueye ñoo ànd génn Sénégal dem France ñëwaat mooy demam bu gaaw bi France Doro Gaye génnee Kaliphone ci passeport diplomate bu Sénégal téyewut passeport bi dooro la ànd ba mu jógee foofu ñu indiwaat ko élection yi jeex mu dem ñu téye passeport yi mënta ñëw man maa ngi défier Kaliphone bu ñëwee Sénégal te su buggee ñëw man ma dagg billet bi su ñëwee Sénégal man ma naan sàngara su ñëwee Sénégal na ñëw rek dakaar ne maa ngi nii billaahi wallahi tallahi man naan sàngara teg ko ni àdduna di gis man naan umul xabaayis passeport diplomate la duggee wala mu wane passeport am ne suma visa France bii laa duggee wane date bi mu dugg France ci visa bi bu ko defee ma naan sàngara moo tax procureur de la république ministre de la justice ñu saytuwaat passeport diplomatique kan moo ci amoon droit te du président ak pourquoi ñu ko daan jox n'importe qui muy dem ak moom fu ne loolu ministre daf ko war a bàyyi xel. ba pare mbir Adja Thiaré war nañ koo seetaat. xoolaat ko bu baax ñu oo ko laaj na danga vierge mësul vierge ak pourquoi Antoine Félix Diome en tant que ministre de l'intérieur dugg ci deal bi pourquoi ministre de la santé ak ban doole la Doro mën a am ci influence ba mën a influence loolu lii lépp lu ñu war a seet la parce que dafa lu fi weesu lu ñu war a indiwaat tegaat ko ci table bi atte ko kër Kalifa musuñ koo miraas laaj ko lan moo tax miraasuñ seen kër baay te ci lislaam sunnatu rasulillahi ku dee ñu miraas lan moo tax miraasuñ kër ñoom bàyyi Kalifa fa laay yem question rek laa laaj et pas méchant quand jullit bu dee den la war a miraas nga dee di Haalpulaar dee Dakar miraas la lan moo tax dama ko naan di tey laaj loolu pourquoi miraas suñ sa baay waa nit ñu mel nii bu ñuy wax ci man lan laa leen di tontu du ci juddu du ci jikko du ci xamxam xam du ci am-am du ci classe du ci personnalité du combat mag ñoom du combat benn exemple man jàng naa ci yow ni koo xës ba xalab wala koo xës ba wax ci moom lu ñaaw mënu mënu ànd ak moom. non <coughs> parce la. mais lu tax loolu mënoo ko appliquer ci koo xës ba àndal ci lu rafet mënoo koo ñaawal comme cas li wax may insisté mooy cas Californie ndax tey jii lii nga fi wax ci Californie dafa rëy na rëy joo xam ne ci koo xam ne sa wëllëre la woon même bu dee ñaari fan ànd ngeen doonoon ngeen ay complice àndoon ngeen daan génn jigante ngeen teraanga ci lu rëy wala ci lu ndaw. tey yow ak yàlla li mu la def fi mu la teg ci xam-xam ci sa dënn fees fees alxuraan nga xamal ko loolu est-ce que doonul woon gën a jekk ak lu mu la tooñ tooñ wala lu ngeen jote jote jote nga téyel ko boobu sutura. ba tey waxuma man damaa pose question pourquoi bàyyi Kaliphone bi mu dee ba tey miraas suñ këram. dama laajte. te yow kaawu caara bi ngay wax caara du tudd xaw ma mais yow yaa nga ca woon àndoon nga ci. damaa xam biir ak biti. waaw bi nga xamee biir ak biti lii tey ngay wax est-ce que ba mu jotee yow taxaw nga nga ni lii moom muy dëgg. dama da ngaa demoon da ngaa pour taxaw sa sa ca jamono sa nit. non mais mu ngi fépp. ne man xaw ma dëgg bëgguma xam dëgg Kaliphone laa faral moom laa àndal. mais dama ne kayit bi docteur bi génnee na ajaa Thiaré dafa vierge Doro Gueye ci ñi ko réglé la bokk Antoine Félix Diome mi ngi ci biir ministre de la santé mi ngi ci biir ak docteur bi mi ngi dund neen vérifié waat. man xam naa ne médité nga ko mais dama il faut ma laaj la question bi li ngay wax nii est-ce que yaa koy médité. non xam naa ko bu baax. te wallaay waxuma man waxaguma. non danga ma laaj rek hmm. lu ci mel ni soko Choco Adamo Californie pourquoi buñ lay taf yow doo leen taf ma ne la man dama am lu ma war a wax ñoom amuñ lu ñu war a wax amuñ ba pare ngor ak ngar mi dafa am lu mu nanguwut ñaata yoon nga dégg ma ne soko man dama ko bëgg bari na ñàkk ñàkk vie ak bëgg xew moo ko dugal ci man billahi lazi la ilaha illa wa dinaa ko noox parce que yabaate danga koy faj waaye nit ku taxaw ne àdduna daf la bëgg boo ko ñaanee mu may la mu lay dégg nga koy dégg war nga jomb yenn yi war nga rusule ni moom bi kooyam foo feeñee su ma yoon nekkul ci parce que góor la kooyam la waxuma ci tudduma ci loolu mbiram la waaye man lay nekkee suba man lay nekkee bëccëg man lay nekkee ngoon moom mooy suma dernier billahi wallahi tallaay bés dina ñëw doo gis Kaliphone live Hmm. buñ demee ba janvier jot ñu ne ñu ngi souhaité année bi nga gis Kaliphone taal téléphone am man ci lay bàyyi TikTok xam naa bu baax li may wax kàddu gi bés buñ demee ba janvier jot nga gis Kaliphone Tall ne ana Ahmed Cissé maa ngi nii di live keroog ma tëj suma compte bàyyi TikTok bu ma kenn gëm nag ay dul la ba keroog bañ koy gis te Adamo dinaa ko jàpp point boo xam ne dinaa ko indi live ñëpp di seetaan ma ne ko kattal sa ndey toog mu toog ma ne ko supprimer sa vidéo mu supprimer live dina ko def wala ma yàq ko ba faw mais boobu nag duma xam kañ la mais dinaa ko def moo tax luñ mën rek neen def ñu ngi jëflante koo xam ne xol bu baax laa mais décision la bu ne lii lay def rek dina ko def su ma digganteeg loolu yàlla rek ci mën dara moo tax buñ mënee jël suma bakkan bii neen ko jël buñ ma mënee lekk neen ma lekk li gën a bon mooy jëflante ku dul mer man damay toog méditer ba pare jël ay action teg ko te dama koy exécuter su ma paree ci ñoom ñaar nag door a jàkkaarloog Sonko moom dama koy récupérer nice liñ foog ne loolu laay xeexee teg live nga naan ma ma ne la ñuy jokkalante ñoom ñooy gañe mais man du ma gañe su boobaa den may ridicule delloo ma ginnaaw tardel ma suma liggéey lu ñu wax bu subaa damay ambiance di wax di kaf di nekk ci leneen bàyyi leen ñoom mais dinaa leen déstabiliser jël ay nit ni ñoom ñuy wax rek ñuy jokkoon maa leen jokkoon maa di wax rek ma nekk ci li ma mais waxuma défier naa kalifon ci ñett benn na ñëw Sénégal comme dëkkam la na wàcc Dakar bis bu wàccee man naan sàngara moom moo may wo maa koy woo ma ne ko ban sàngara nga bëgg mu ne nii man naan ko ba man di toog te ci live laa koy def ñépp di gis na ñëw Sénégal na wane kayitu juddu doom ji mu tuddee Doro Gueye turam ak santam moom Kaliphone ne ci na def test ADN ADN bi génn moo jur doom ak lan moo tere ñu miraas kër baayam ñeent yi laa ko laaj ñeent yii rek laa ko laaj mu ne cëpp senegal benn mu wane kayitu juddu doom ji mu tuddee Doro Gueye ñaa ñetteel ba mu def ADN ne moo jur doom ji ñeenteel ba lu tax miraasuñ kër baayam man ñaar ñaar ñee waxuma ndax dabe la lu ñooñu TikTok moo leen boole mën nañ mais tey sa diggante ak Kaliphone wax junju naa la ko léegi même bu dee ñaari fanu teraanga séq ngeen ko ngeen séqoon jàmm di demalante ak ñëwalante di xamalante biir di xamalante biti c'est pas hasard mbiru ndaw soosu bi mu amee mu woo la yow te yow ba nga demee yaa ko wax nga ne lijjanti dëgg xooloo fu dëgg féete ak fu mu féetewul Kaliphone nga àndal tey àdduna di dox ba ngeen ni ba ngeen di jokko maajoor jokkal leen bii est ce que jar na ko tey ci ay ñaar ñoo xam ne nii ce sont des responsables ay mag yi jëm ay kilifa ci réew mi tey mën a nekk kii bu waxee lu rëy ci kii après kii riposte waxaat lu rëy ci ci ci keneen ki est ce que jekk na ci ñu ñu àndoon démb te leer na ma tey jii mën nañ mën mais waa kër Kaliphone ñàkkul benn ba ñaar ñoo xam ne nii am nañ cofeel ci Cheikh sa kër yow wala sa ëtt ñàkkul. am na ñoo xam ne ni am nañ cofeel ci. ci ci yabaate yabaate weesuwul nga ne Kaliphone kilifa la kilifa la ci kilifa la. ci kan. mais ci soxnaam kilifa ci ay doomam kilifa la ci entourage am kilifa ci société bi. ok la. ah bien sûr. ok damay modifier sa wax. muy lan. jëkkër la ci jabaram bàyyi la ci doomam waaye bàyyi ak kilifa du benn. léegi lan mooy def nit kilifa. ba nga ba nga bañ ba ko bañal. merci nangul naa la la fait xamoo moom bi moo tax nga utiliser ko mais beneen yoon neel am na jabar am na doom boobu moom am nga ci droit. Hmm. kilifa soo koy utiliser dafa mu ñoo ko war a ràngal. léegi yow lan mooy kilifa. maa ngi ñëw du respecté suma personnalité nga ma tuddee kilifa en même temps nga tuddee ko kalifa bul ko defati. tey du ma sa taalibe de. loolu laa kilifa la. moo tax ma ne la dama woowee xës wala metso. non Kaliphone kilifa la loolu moom duñ ko ko bañal kilifa la. da nga laaj ci question. waaw. su ma tontu mooy aw ma ci tontu avancer ci leneen. ok léegi tey. Mhm. li nga fi junj nii. ne di ko def kalifon di nga ko def ñeneen ak ñeneen lan nga ciy gañe wala ñoom li ñu lay taf di wax ci yow lan lañ ciy gañe maanaam vous gagnez quoi. ñoom ñoom dañuy gañe vie. léegi vie lu muy yokk ci nit. gis nga pathétique. nit bu perte. ñu lay seetaan ngay gis rek muy doon ay sept mille neuf mille day sedd sa xol. nit ñi nan la yaa fi ne di la may kër loolu day neex feebar la maanaam réseaux sociaux feebar la di nga gis ku ci nekk du tal jabaram gis ku ci nekk du tal doomam gis ku ci nekk lii priorité ci moom du ko tal feebar la nit ñi topp la yow lañuy topp yaa fi ne loolu feebar la boo xam ne ci bopp lay dugg i sa syndrome sa biir bopp bi lay dugg di ko ruumandaat ñoom loolu leen ci gañe man li ma ciy gañe mooy yabaate danga koy faj te yabaate weesuwul nit ku nekk ci boppam lijjantiwu la nga topp ko rek xam nga problème bi yëpp lan moo ko indi. Hmm. xaalis parce que Doro Gueye moo leen doon jox xaalis moo indi lii yëpp aadam moo ma tegal ndeyam ba muy ñaani fule rek tappate di jouer kenn xamatul fu mu ne mu bëgg a ñëwaat di wut occasion ci man man du ma guy gu daar dama am ay dëj yéeg ma yombul wàcc ma yombul Kaliphone dama ko laal fu métti xol bi ignoré mënta bàyyi moo tax keroog bi mu gisee la ma dugg guddi gi nelaw ñëpp la woo live bu ne la donc pour expliquer la que. Ah, bro ma maay live li ma doon wax. pour ma continuer li ma doon wax. Mhm. da nga gis ne tey ñoom la ñuy gañe mooy ay vie rek man suma xëyee di lijjanti ji xaalis ñoom seen feebar mooy Cheikh Ahmed Cissé te li leen jaaxal mooy mental fer bi mu am courage bi mu am ak ni ko nit ñi di gën a bëggee daf leen traumatiser. lu ne def neen ko dara wàññeekuwul loolu daf leen feebar waaye man téegal leen daf ma war man ndax dafa am ñu ma sopp am ñu ma bëgg am ñoo xam ne buñ gisee yéen yi dafa leen di métti ñooñu faaw ma faj seen naxar parce que mbëggeel dafa diis di seetaan live ñuy wax Cheikh Ahmed yéen yi day métti nit ñi naxar boobu ma ne maa leen ameel njukkal bi neen toog seetaan ma dinaa fayul dinaa leen fayul man maa leen ko promettre muy tey muy suba muy gannaaw suba xam naa ne dinaa leen fayul mais est aussi noonu nga yëgee ne da war a fayul nante yi jàppoo ni li ëpp ci nante yi bëgguñu nga fayu liñ bëgg mooy nga romb romb lii nekk ci beneen level. waaw loolu dama koy def. damay def nga faj foog nga faj ko pare. waaw non non damay romb dem sax ba pare faj maanaam am naa élément yu ma fayoo mais c'est pas le man ci sama njort. yaag soko ko être fa ngeen mujj après mooy xixixi xaxaxa loolu day jàll mais man bark rasulullaay sëñ bi booy wax ci Californie man damay am gêne xaw ma nag lan la bu ah. Californie buy Californie buy wax ci yow du ma neex mun nga jàll ci leneen man damay seetaan laay fam am dal mais moom bu ma seetaanee de rappi rappi di wootee fu ne mu jéem a dugg man musuma jéem a dugg laay fam yéen ñaar bu ma yàlla mayoon xam-xam bu ma toogee def ay mbir yéen ñaar ñépp ngeen fay ni galaas ngeen sedd ni galaas nekk ci jàmm dama koy def. mais man ça moo ma topp rek di taf di wax rek moom yaayam dafa dee musuma tudd yaayam ndax yaay dafa foor moom xamut yaayam. baay foor xamut baayam danga mos dégg ma wax yaay Kaliphone wala papa sa diggante ak yàlla danga ko mos a dégg. déedéet wala boog bàyyiwuma ci xel. non amul duma ko sax saaga ndey moom bët bu set rek muy saaga ndey rek te man dinaa xeex ak moom ba bàyyi duma saaga ndeyam parce yaay ju ak loo jotee jotee ak nit ki ñaanalal ndeyam xam ne yaayam tooñu la nga jëflante ak nit ki loolu mooy dëgg loolu moo tegu ci yoon dignité mer du tax mu dëñ kontaan du tax mu dëñ ci juddu la boo ko amul rek amuloo man moom laay wax yaayam fa tëdd na ko yàlla yokk njëggal ak yërmande ak mboolem jullit ak baayam amiin ñooñu defuñ ma man moom laa doon àndal moo ma wax moom laay fay parce que garmi laa man duma cubal garmi laa nit la jamais ma taf ndeyu nit mais ñoom tollu neen ci yàqu ak rekkeeku ak ñàkk solo duñu am sax sentiment ndey ak baay xamuñ loolu lu muy saf xamuñu ko mais nit boo amee doole mën nga wax ak moom jëlal benn exemple moom Kaliphone ak Adamo lu ñuy wax ñu ne damay yàq sénégalais su ma egsi jabar sénégalais la alpulaar la Kaliphone tax na fotoom ci page am te kooku sëyuma ak moom jàmbur la jigéen la kooku mi yaa gisee daf ko gën Viviane daf ko gën waa ñoom dañuy protéger Viviane mais kooku moom dañ koy taf te kooku waxut defut xeexut yoonam nekkul ci daf doon sëy tas na mu ngi jàpp njàmburam ñu ngi toroxal jigéen ci kanam yi bi ñëpp di ci teg ba Adamo dem na ba xam ne kii du jabaram waaye mu ngi fa bàyyi photo yi ngir vie yi ak commentaire yi ci kaw jigéenu sénégalais la koy wut Kaliphone di ko wut ci moroomi Haalpulaaram ba pare na day joxe moral mais c'est impossible mënul nekk yow Cheikh Ahmed nga soxla waxal ci moom taf nga jigéen xam nga ne kii sa yëtut ak moom tàqalikoo neen mu ngi toppatoo soxlaam bàyyil kooku génnee ko ci guerre des mais ba tey ñu ngi toog Gabriel Kane démb message la ma yónnee ñoom ñaar ñëpp ñuy rappi rappi Gabriel Kane message waxul dara lu aay maa ngi lay feddalil suma mbëggeel ci yow tey laa la gën a waaye lii crime la Californie woo yaay Gabriel sëram ñëpp la woo Adama moo yónnee message Gabriel defal ko live léegi lu ñoom luñ luñ yëgee loolu man maa ko teg suma live seen seen taati tàng lii rek la mais aussi man franchement seen maanaam jeu bi lu ma koy gën a xalaat seen jeu bi nii ci ay góor ci ay kilifa ci ay ay ay ay ay mukalaf man franchement comme par exemple Gabrielle Kane moom moo sentir wax ci yow lu positif loolu où est problème où est le ba ba ba ñu war la cee attaqué. non igual de même ka yow bu doon yow yaa ko def vice versa. non mais Gabrielle dafa gis ñu publier suma photo maa ngi def yaramu neen loolu métti ko mu may jox soutien Hmm. tuddul kenn néewut neen xeex maa ngi feddali suma cofeel suma mbëggeel tey laa la gën a bëgg point lii de la wax mais aussi yéen bu ngeen guerre seen guerre foog ngeen tàmbalee ci benn affaire nañ bàyyi clan yi di ut di utal nit ñi àpp ku ci nekk fan la war a yem ak kan la war a àndal ak yooyu moom. moom mais guerre sa amu fi amu fi ñoom am neen droit wax lañ war a wax ak lañ bëgg a wax mais neen bàyyi nit ñi Mm-hmm. Adamo loolu la doon def rox bàyyil Ahmed Cissé kooku na ko moom a la gënal duma ko bàyyi yow ñu ne na wax force ne sëñ bi dafa am l'émotif ma ne waa léegi lan mooy l'émotif no mais man exemple li ma gis man tuddewu ma ko l'émotif man l'émotif mooy ñaar ñuy laalante man pour man waaw pour man pour man yow sa image bi loolu man jarul sax toog di waxtaane non parce que man la loolu moom franchement jarul. parce que man la nit ku ñu fekk mu toog ñu filmer ko ñu ne le motif. waa léegi foofu laay puruxlu ki def loolu moom ku jigéen gi lan ngeen siixoon lan ngeen jote ba tax mu def jëf ji. dama boobu léegi dégguma la nga nga li ngay aalu ci ñi ko génne. yow yaa ngi aalu ci ñi ko génne lu na nga yàq leen ko fi mu toll mais moom ma nga xam ne moo filmé tax loolu génn waxoo ko tooy na waxoo ko wow na. yeggal kii foog ma jël ko mooy defar sama oto bi walla xose wallaahi musuma aalu bul ma waxate mukk yaa ngi aalu musuma aalu you know let, let me take way Lalusha jigéen la xale la bi jamono daan baax góor mooy filmer jigéen di ko chantage ak menace photo jigéen yi moo daan feeñ waaye ne jamono yàqu na ba jigéen di filmer góor loolu musuma ko xalaat léegi moom bu ko defee amul lay premièrement li dul yoon te jaarul yoon mooy di sëkk ak doomi aadama ba pare di ko filmer ku ko mën a def am nga intention bu bon ñaareel ba nga denc ko sa téléphone atu yàlla am na looy wàcc am na loo bëgg ñetteel ba lan moo partagé vidéo bi Binge Cosmetic from Sweden thank you so suma doom bi donc yii yépp soo ko gisee dangay comprendre ne am na lu xew am na lu tax léegi nag lii daf lay may nga teylu comme ni ma teyloo ni ba xam ñi nekk ci ginnaaw lalu chat yépp naka la vidéo yi jaaree ba génn nee naa leen ñii boo leen teyloo rek ñu wax ba mu génn ci seen gémmiñ te tey lalu chat weer na boppam yàq na deram te muy neex muy naxari ak ku mën a taxaw ci ginnaawam ak koo mën a doon dinaa ko tëj kaso dinaa ko tëj ci kaso gi te du yàgg muy neex muy naqari donc tey jigéen joo xam ne yàq nga sa deru fan yàq nga sa der ci xale bu ndaw lan moo ko jaral lalu ak lan lay gañe coow lii yépp sa koñ sa mbokk yépp xam ne yow demoon nga tëddante góor ba pare yaa ko filmé doon ko chantage la ti gañ quoi. ñaaw na de. te ñi koy protéger yëpp ma wax ko fii muy neex muy naqari lalu saa dinaa ko tëj kaso te loolu mu def noonu. maa ngi dégg ñu ma mustoon a dégg di gis ñu ma mustoon a gis mu may yokkal dara ja di ma yokkal connaissance di ma yokkal lu ne tey la ma nit ñi gën a bëgg wàññiwul dara dara dara dara ci man la ma doon def benn tey laa koy def ñaar mais moom tey xalaat na dugg ci biir néeg xam nga Kaliphone daf doon wax mu ne Massaly mi katt mama à l'âge de dix biiral ko ba bañ doom bi mu ne tey taf jiñ taf mama mu ne ndax du rus ku koy takk loolu la waxoon hmm. waa lalu saa mi filmé góor ko wane ne kat ne la moom dina am jëkkër moom moom ku baax la moom man moom loo xam ne mënuma ko comprendre la muy lalu saag muy muy mintoog muy ku mënti doon ko def lu ni mel ndax loo xam ne nii ay góor ñoo ko daan def dans les temps ñu naan góor ñëpp ay dooméraam lañ góor ñi nàngam góor ñi nàngam bu ñu demee tey boobu la monde en l'envers jigéen dem tëdd ak góor wala nekk ak góor di ko filmer ba loolu di génn moo xam ci loo génne lu génn par accident mais dafa ñaaw quoi dafa ñaaw ci dégg-dégg en tant que nit nag balaa ñuy yëgg ci góor ak jigéen dafa ñaaw dafa salte donc tey nga gis tey coow lii yëpp mu jur ci kaw lalu lan lay gañe te am na ku bokk ak moom benn kër affaire bi mettiku mu jox ma photo yaayam wax ma ni lalu saa juddoo li tas say yaayam bi muy nekk lycée Limamou Laye amoon na problème ak professeur am ci lu mel nii ñu dem cybercriminalité bañ ko jàppee ci PV bi bind neen ne ay le góor yim doon masturbation di jàmb bajoom ñiy téye seen koy mu ngi yu bari crime euh, répétitif la tey yooyu yëpp maa ko garde toog noppi mais bàyyi ba mu pare ma jël suma temps man du ma yàkkamti wax fu mu nekk ni soo waxee day mel ni contre attaque gars dañuy bëgg cas bi gën a dem maanaam attention bi ma ci bëgg duma ko am moo tax ma rasu xam nga bët bu set ñu ne tey Lalou Sagnó la moom rek laay xaar mu wax ñoom neen encouragé Lalou Sagnó ba mu wax. Lalou Sagnó nag génn ci réseaux sociaux yi ne oh, na wax benn baat Kaliphone ak Adamo maa ngi leen di défier chaque jour ngeen ne Lalou dina wax na génn wax benn baat. bët bu set ñu annoncé ko tey dina ñëw suba dina ñëw. ba mujj gi Adamo moo nekk GP mu ne. GP <laughs> kay. mu ne lalu saa mu ne dafa ñëw suma néeg ñu toog di waxtaan après mu ne dama ko bëgg a tëddee mu tiit mu dem si wanag bi bi mu ñëwee ma ne ko toogal ni noonu la demee. nante yi dañ ko seetaane may ko sem dem seen yoon <laughs> dégguloo dégguloo vidéo boobu. wax na ko mu ne lalu chat mu ne damay fen man laaluma ko dafa ñëw ñuy waxtaan après ma ne ko dama lay tëddee man si laa simmeeku mu tiit mu dugg si biir wanag bi bi muy génn ci laa ko ne toogal nii fale film bi yam nante yi seen bopp dem seetaan vidéo ba pare mais ko seen dem seen mais Laloucha Laloucha est-ce que est-ce que consciente na ci ci lii li répercussion bi mu ko mën a jural image bi mu ko bi mu ko mën a jural tur tur bi tey Laloucha ato automatiquement nga xalaat moom moo génne awra nit moo xam sëñ bi la moo xam ku mënti doona xamu ko xam nga tey muy Kaliphone muy Adamo lañ ko soxla mooy mu joxleen leen image yu Cheikh Ahmed wax ci loolu rek leen soxlaa lalu sax mais Adama xam nga mënut a dugg Sénégal Californie defiyee naa ko te lalu saa dinañ ko jàpp nice tëj ko nice su ma paree nag li mu def dina suivre conséquences yi benn par benn mais ci bés bu rafet ak situation bu rafet mais léegi lu ma wax rek moom mooy gagné day doon nga ne ma ne kaa di dem nit ñi gën a seetaan vie di yéeg te influence ak importance bi ma ci bëgg duma ko am dangay bàyyi ba yëpp sedd ba nit ñi mel ni lu fàtte nga yëkkati mu am beneen formule wax mais léegi-léegi duma wax lépp xaaral ma woon cëy waay ji kii mooy yaayu Lalu Sall Euh, kii xale xale la. ok. kii mooy yaayam. pour wan la rekk ne balaa ma la naan dinaa la fekk naa ma téye kii moo jur lalu sax waaw mais au ngay yéegal photo yaayu lalu saa doo yéegal lalu saa moom mi nday mbill gi yaayam defut de non dama la bëgg a wan rekk yow ne mm-hmm. li ma maanaam li ma bëgg a wax ci ay weer yi ci kanam mu ci suma téléphone de sax heure bi baaxul pour wax wan la ne coow li mun naa jug ñu naan ñu ngi koy xaw a rey jekku neen ko fekk la ma la war a wax maa ko téye mais heure bi baaxul parce que ci biir xuloo loo wax du saf xuloo la mais da ngay bàyyi ba mu jeex nga créer sa jour yow def sa annonce dóor sa dóor mu jàll parce que fii dara yàggu pour wan la ne Laloucha na mu juddoo problème yi mu mës a am ak justice ak góor ak la muy def lépp man téye naa ko balaa muy dem tirbinaal ba ci photo yaayam ba ci ay audio yu yaayam di waxee ci kaa bi ak ay xaritam mun ci suma téléphone mais heure bi baaxul lépp ci heure la yërmande laa doon dawal ne jigéen la mais léegi yërmande amatul gat sa gat sa la danga koy tëj ci kaso gi ba pare aadam moo Californie munuñ ci dara ba nga wan leen ne Sénégal gi ñu naan dëkkoo fa yow yaa leen ëpp influence te maa ngi koy wax ci kaw bu dee justice am na Sénégal Laloucha dinaa ko tëj bu justice amul Sénégal dinaa ko xeex te dinañ ko tëj parce que sañu ta bañ la nangoy ndeyam force la ndax loi bi moo ko war lii nguuri jomaay la ak Sonko bam tëdd ci kaso gi ba pare nga door a jàkkaarloo nit ñi wax la ngay wax pare ci maanaam moom lalu Loucha dina weeru dina ko yëg te duma ko wàcc dina ko tëj ci kaso te du gañe dara te cinq cent mille yi dina ko fay wala mu fay lu ko ëpp wala mu tëdd ko feeg fayu ko du génn. mille. dañoo dem tribunal ñu àtte tëj ko deux ans trois mois ferme un mois sept jours te dëggul dara vidéo bi génn léegi beneen plainte laay def xam nga plainte bu njëkk bi daf ma enregistré di ma laaj xaalis hmm. plainte bi may defaat division image la ak yeneen ak yeneen contre x ñu woo ko déglu ko fu vidéo bi jaar mu doon beneen pen bu wuteeg bii luwaa laa lay suba férié la gannaaw suba ma dugal suma plainte contre x plainte ma kenn suma image lañu tasaa yoon def liggéeyam image bi kan moo ko jël lalu saa fan la ko jëlee suma kër ban date la mu fa ban année moom la fu image bi jaar moom dina tontu correctionnel la jëm xam nen kañ na xamuñ kan la fa la ñuy def investigation ba xam fu mu jaar moom mu toogale ci kaso gi te wutee naag trois mois yañ ko tëju mais yow en tant que représentant de la femme tey ngay ngay ngay représenter jigéen ñi dangay défendre jigéen ñi ngay woowe sa bopp avocat jigéen ñi donte juum na donte li mu def nag kenn du ko justifier rëy na li mu def moom amul kenn ku sañ a taxaw di ko justifier mais yow tey nga tëjlu ko wala nga jubbanti ko nga teg ko ci yoon gañewoo ci dara te moom amaana dina ci am lu ko metti njabootam am lu yenu yenu lu diis gan wili pande seen sutura xaawee ko ci est-ce que jar na ko tamit. xam nga ab ay mënta weesu ka nga dooroon deena hmm. moom mi ñëw suma kër ma teral ko mu vidéo ma ak suma yaramu neen yow naa feex bi dama leen laaj dama ko war a bàyyi mu demee noonu wala den ko war a jàngal ne lii du yoon keneen jàng ci lan laa war a def. mën naa jànge neneen nu dul dem kaso. wan mos mos nga kaso xam nga li ci kaso. waaw wax ma ko comme naka jàngal ma soo waxee dinaa déglu comme su ma ko doon jàngal lu mel nan laa koy jàngale. non waxuma ne damaa yor solution bi nga koy jàngale. non yaa ma ko wax yaa ma ne mën na jànge beneen yoon yoon boobu ban la. waa léegi dama lay jox benn exemple. nangu na. toog nañ fii. ñu tudd ndey Gueye ak papa booy jinne nga yekk ko la nga koy yàq ndax dangaa tëddoon kaso ak ni kaso mel mu yéene la ko nit ku baax du ko def ñu nangul la ko tey kii dëgg la moo tooñ àdduna yépp nangu nañ moo la tooñ moo génn sa image waaye moom deram dana ci yàqu moom image am aussi dina ci yàqu njabootam tey lu ma wóor ba wóor ne muy ndeyam ji nga wane léegi tëddul nalawul nekkut ci jàmm bu sañoon bu mënoon a reculer dina reculer waaw ma ne la xam li ci kaso ak baatu kaso ni mu mel Sénégal moom muy jigéen yow ngay représenter jigéen ñi doon avocat jigéen ñi boo ko yóbboo kaso tey dina métti ci moom te yow du la du la du la yokk du la wàññi. man laaj la su dul loolu lan laa war a def yow lay la question bi tontu ko da ngaa sa question rek. nga nga nga nga bàyyi koog yàlla. yàlla fu mu nekk. ah xaw ma ko de. très bien soo may bàyyiloo nit ak yàlla danga ma naan fii la yàlla demal ba ci yàlla nga bàyyee ko xamoo yàlla xamoo fu yàlla ne nga bëgg gisuma yàlla xawma ko ngóor dafa tuub àjjuma mu toog lekkam bi yëpp lakk ñu ñëw na ko ngóor yàlla baax na mu ne dégg naa ko waaye li ma bayoon moom nekkatu mu ne moom dégg na ne yàlla baax na ça veut dire que xamu ci dara <laughs> waaye yàlla mi ngi may bàyyee la sax lu ma koy bàyyee nekkuñu woon ci lu baax di den doon mooy yàlla yàlla toog seetaan yi mu vidéo génne yàlla seetaan nga ne man ma war a fay nga ne ndax bàyyi yàlla yàlla balaa nga koy bàyyi bi da ngay nekk bu fekkoon ne dama nekkoon ci wanag di sangu mu filmé mën naa ko bàyyi yàlla ndax moo ma tooñ mais loolu ñaari doomaraam yi doon kattante rek mu jeex loo ci dugalee yàlla yàlla dafa civilisé génneel yàlla ci yooyu nga ne ñaari doomeraam yu doon katante da doon jaay lëf may jënd lëf maanaam caga buy fas man góor bu léegi non sëñ bi da doon jaay yàpp wala da nga koy yàpp du dëmm jënduma yàppi nit bu ma wax loolu du dëmm xam nga am na ku fi mus a ñëw ci say commentaire mhm. saaga la mhm. nga jël photo yéegal ko mhm. wax la ko yekk la nga ko yekk moom kooku bu démb doon tey dootu la saaga mais est-ce que demewul noonu ci laalu saam yi peut-être doonoon sa gel wala doonoon sa nekkaale nga bëgg ko tey bëgg ko bëgg bëgg koo ñaawal liñ naan xuloo mbalit la bu ko loo jekko da ngay da ngay xëpp sa dégg la mais mais mais ca caga bi ngay wax est-ce que caga la tamit léegi fokk nga dimbale ma ma leeral suma bopp lan mooy caga. caga bu bu bu ma la fekk see ci fi nga bëgg a jëm mooy ku sëy ba tas. waaw léegi ci mag yow suñ génération lan mooy caga. mooy kuy ñëw jox la boppam ngir intérêt moo xam économique moo xam daa am beneen intérêt bu ci. jox la boppam dafa rëy. nit boo jébaloo ci sëriñ jox nga ko sa bopp. maanaam ñu cottu ngeen kattante. waa maanaam jigéen ju indi bajoom nga kattu ko pour nga jox ko. waaw mooy caga. waaw ok. lalu saam musuma koo xam musuñoo génn moo ma contact ma gis ko mu neex ma invité ko mu ñëw ma wàcc jël ko ñu dugg ci ascenseur bi ma continuer ci néeg doxaanante wuñ waxtaan si muy konte laalante laalante waat ma ne ko demal nga sangu farat bala ngay ñibbi mu dugg ci douche si génn film ma maa xam nga noobul la te benn yoon boobu ngeen mus a nekk benn bis boobu. ci leen mus a ci leen gëj gisante ci àddina ba saa si yàlla tey musuñoo gisante. Mm-hmm. premier jour ñu gisante ci la am. néew ma ko loolu yëpp ci seen coobare bopp yéen ñaar. waa mu neex ñu non. góor gu doon wër lëf la ak jigéen juy jaay lëf. ñu def ko nanditama amul fay ma nangam ma pare jox ko. maanaam du koo xam ne dafa yor carte di wër di jaay boppam. mais dafa dafa ñëw yow nga soxla nga soxla ko moom mu xam ne fii mën na fee am intérêt mu jox la boppam. c'est que da nga xamul ñun Dakar nante yi du ñu waxtaan. <laughs> ñun amul waxtaan. nit daf lay contacter na la ma may la suma benn waay nga ne ko lu muy maye. mu ne la dina maye deux cent mille nga ne ko na ko yokk cinq cent mille leen ko tuddee tuddee wuñ ko fay. <laughs> loolu moom cagatu la moom mooy li ñu tudde mbaraan rek. waaw maanaam dama bëgg comprendre ne ñun daan tey nekkuñ fi di waxaale. ñun indirectement la. dangay def état yi kenn gis ko nga ne ko mën naa la koo may. waaye yow tamit benn cuqum njaay deux cent mille. allahu akbar yéen ah. mën a fay. ah léegi léegi nga joxe un million ça dépend ci kii borom bajo bi ni mu valoriser bajo bi rek. lii am Ndakaaru njaay. àdduna yëpp Espagne googu amul. non mais comme ni nga koy expliquer nii Espagne ñi fi cagatu dañoo yor carte dem di cagatu yor seen bërëb nga fekk leen fa fay leen. mais pas comme ni nga koy waxee nii. ay kaay ma may la sama benn xarit. non ñoom ñoom Sénégal mbaraan leen ko tuddee. de suma mbaraan la. am na beneen moo buñ ko tuddee dil. kaay ma may la dil. Hmm. waaye baatu cagat duñ ko utiliser naan di tamaa suñu yaram bu loolu fay itam duñ ko utiliser. mais lii moo am ndakaaru waxoon naa ko ñuy dee ma ne xaram laadu moo gën a jë seer bajo Dakar cinq mil nga laal mais laadum cinq mille amul Dakar waxuma jigéen bajo laa wax ak daanu lii moo fa amaan nante maa kenn du wax maanaam soo bëggee mayee xale yu jigéen dañ lay yónnee seen photo nga statut leen gu mel ni yow moo ko daan sa doom ji rafet na ma may la ko ndànk mu dem nga may ko xaalis borom bajo bi ni nga valoriser sa bopp rek ngay amee xaalis am na caga joo xam ne un million la ñuy tëddee ñii cent mille ñii dix mille ñii treize mille ñii vingt cinq mille ça dépend ci ku nekk sa valeur rek. noonu la demee ndax xoolal lii du dara de nante ma ci lii la nit ñi nekk Dakar. maanaam da ngay dugg ci série yi sax pour gën a mën a am visibilité mën di tëddante bu baax ñu lay jox xaalis. mais li may yéem mooy yow yaa ngi koy wax nii sans gêne. lu tax mu war maa gêner parce que moo xew ci dëkk bi dama leen nettal li xew ci dëkk bi dama war a gêner kon ma doon naa fekk bi waaw daf laa war a gêner c'est parce que jamono yi ngay nekk Sénégal di dund yooyu jàpp naa ni weesu nga yooyu tey boo delluwaatoon Ndakaaru Njaay doo nekkaat ci yooyu xanaa. non ba tey néew ma la lii dund dama lay wax li am Dakar que yow maa la fa gën a li tax nga xam ko li tax nga xam ko koy xanaa. man ci pëli laa bokk maa ci gétt gi damay naan ci soom yi di lekk ci yàpp yi di dëgg ci day loo bëgg a dégg ci gétt gi laa nekk ma la fii laa liggéey néew ma la ci gétt gi da maa ngi lekk ci yàpp yi naan ci meew bi maa ngi ci day ah jéggiwu ma day <laughs> foto wuñ ma yónnee <laughs> ci day la bokk maa ngi dëgg ci day naaj di lekk ci yàpp yi di naan ci meew mi heure ATM ak moo gis waaw meew mi boo ko naanee ñool ba dama ATM mu ngi ci live bi maa ngi lay bëggee ATM mu ngi may woo sànq mais jëlum ko mais léegi yow mm-hmm. maanaam lii nuñ ko mën a tudde affaire bi ni mu ñëwee ñuy divulguer ku nekk di partagente say vidéo wax ji sew ji fu nekk di wax yow ngay dund je m'en ñàkk jom la euh, xel mu sell la maturité la wala maanaam noo ko mën a tudde lan la lan la lan en fait maturité la wala dëgër la ñàkk jom la je m'en la wala da ngay def semblant ñëw wan ñu ne je m'en mais après boo boo nekkee boo tëddee sa néeg yow kase jooy man. Hmm. non yow tam. hey. Hmm. mentality is very important. gis nga sa xel dafa dafa am solo ñun jullit lanu bàkkaar bi mooy simmi sa koy dugal ko ci bajo fit bu ko ñemee def boo weeroo jàkkaarloog àdduna ne maa ko def la vie continue fa taqullaha mastata ak ittaqullaha xaqa tuqaatihi bu la ci suur rek jëlal mënuma comprendre nga ragal nit ñi xam ne yaa ngi kattante waaye ragaloo tëj seen néeg kattante ngir yàlla waa ji daf doon njaaloog ndaw si mu ne ko tëjal bunt yeeg palanteer yi waa ji tëj mu ne ko des na benn bunt mu ne ban mu ne ko bëtëb borom bi mun ci ñun fekk yàlla ak may xool ruus naa njaaloo mu ne ko ah boobu mun ku nekkul foofu boo katantee mu weeru génnal li yaa ko def loo bañ ñu nettali la ko bu ko def bu ko wax boo ko defee rek wax ko c'est la mais est-ce que xam nga ne ñi ëpp ci ñi ànd ak yow wala ñi lay gën a support lu mel ni comme message yi ngay dégg sëñ bi tey lañ la gën a bëgg tey lañ la gën a est-ce que xam nga ni assumer bi ngay assumer moom moo moom moo leen mais nit ñi dofuñ man xam nga tey amoon naa porte munoon naa taxaw fu wér ne du man den ma monté nit ñi dañ koy gëm am nañu gën montage la. Mhm. te ay weer ci ginnaaw prévenir woon nga ñu nan tey sama le mu ngi waaj génn bu génnee bu ma kenn layal bu fi kenn naan est ce que sëñ bi laag nangam sangam. am ko xam naa ne maa yoon. dégg am na ko ma ne billaay daa am génn la la rek waaye ñun ñëpp am. ci loo yëg ak loo yëgul. mais Sénégal ñoo am problème mu taat. Mhm. mais Espagne boobu dinañ quinze mille personnes dinañ seetaan nit ci kooye génn. déedéet. mais dañu am jot. problème mu taat ndax peut-être moment ba nga koy wax ba nga cay waxtaan ñoom ñu ngi taat ñoom. li ma wax mooy. te du du du du du du lu bees ci ñoom du lu leen. du lu leen yéem en fait du lu loo xam ne ñun daal ñu ngi nii rek. li may wax mooy. waaye taatu diw génn na moom jarul débat. ak benn nga jox nit ñi importance. wala nga jox yàlla importance. yow yaay choisir. am na ñoo xam ne nag. am na ñoo xam ne. jox nit ñi importance maanaam tey. mën nañoo dugg ci néeg laalante amuñ ci benn problème waaye tey benn caméra tàkkoon fa ñuy laalante musiba am nit ñi ñoo ëpp importance wala yàlla ëpp importance donc man duma xalaatee noonu c'est pas dama koy wax sans na c'est juste am na xew na da ngay génn fenn wala dangay ngay génn assumer c'est toi qui choisis man man la te daf lay dimbale xam nga benn jigéen bu ma doon jëflanteel lan la wax mu ne wax ji ci réseaux sociaux yi dafa bari mm-hmm. moom dafam am ay doom moo tax mu jël distance am ci man xamul mu tontu. Hmm. nangul naa la ko bonne chance. kooku daf la wan ci gaaw gaaw ak gàtt gàtt ne moom bëggut la parce que nit ñi di wax ci réseaux sociaux rek mu mën laa ba kooku bëggut la yow. waaye respectel ko choix am na koo xam ne dafay xëy pour xool ndax man maa ngi ci jàmm ndax stressé wu ma ndax lekk naa ndax nana nekk suma boor bokk ak man xeex bi kooku la mën mbir mu nekk rek su ko yàlla dogalee am na lu muy àtte mu am ñoo xam ne dañ daan ñëw suma live di yéeg di ma message léegi léeg ma tontu léeg-léeg du ma tontu dañuy dem man kay ni ma ko yii nii man nii man naa di la ree daf lay wan ñoom ñooy ñam comprendre mm-hmm. mu am ñoo xam ne duñu nelaw am na ci koo xam ne daf ne ma damay contacter Adamo fay ko pour mu noppi ma ne ko bu la neexee nga def ko mais yónniwu ma la sàkkuwu ma ko soxlawu ma ko lii moo ma arrangé bu dee man ngay déggal toogal seetaan parce man xam naa li ma arrangé ak li ma arrangé wu. yow ñoom ñi nga xam ne dañuy jug ñoom di leen fay pour ñoom ñuy wax ci yow xanaa yéenewuñ ma xaalis bi duñ ma wax ma fay man ma wax ci yow. non kon dégguloo de mu ne dafay fay Adama pour mu. non man kay waxuma dégg naa li nga wax. léegi mooy doog a ñëw sama xel ndax sànq yaa ngi expliqué ñooñu nga xam ne danga leen déranger ci àndalaa buri bi ñuy fay ñii pour ñu yàq marché bi ma ne ñooñu duñ ma contacter man fay ma ma wax ci yow ma wax ci àndalaa bi. lu négatif. ah waaw yow tey buñ ma woowoon nii pour ma wax ci yow lu négatif doo ma ne mbës encaissé xaalis bu après ñu nga woo ma ñu làkk waxtaan ci suuf. dégguma mbës nga ne la. dama ni. Mhm. ñooñu. di woo ñeneen di leen fay xaalis pour ñu lay attaquer maa ngi nii woo leen ma fay ma leen ma xaalis ma wax loo leen ma li bëgg a baax xanaa du fay rek ak encaissé man la de jarul xool dara jotuma man mii la mana mbës taalibe nant bi taalibe numéro un bëkk néeg bras droit mana mani yéen ñooñu nga xam ne sëñ bee leen déranger seen reen yi seen ngóor ak keng yooyu dara duxu ci ndax àndalaa buri bi woo leen ma ma yàq àndalaa buri bi woo leen ma jox leen ma xaalis bi li ma soxla bëriwul benn cinq million bu ngeen ma ko joxee ma def ci ñaari live cinq millions ñaari live sëñ bi yow xanaa loolu doomu ko bañal bu dee punkal la nag ci punkal yi duma laal ay cinq millions yooyu de ay terrain ki kër ki oto laal gaaw leen ñëw leen rek ma jaay leen sama ngor <laughs> maa ngi imaginer nii ma def loolu ba pare rek gars yi di la ko laaj ci laaj bu gën naan moom bés daa mos a wér bés ta wér. dafa amoon dafa amoon jamono ma doon xeex ak maraña su fayee booy booy ñu ne mara fay na ma ne lekk wax leen lii wax leen lii wax leen lii waaye toog mu yàgg na ma wallaay yaay góor yaa ñuy may ba pare ñu ñu mosal ñu saagal ñu saagal affaire fa laay mujj ak yow de. ba pare li ci li ciy neex sëñ bi mooy. parce que xam nga ne nit ñi dañoo yaakaar ne xamal naa la àdduna ak li ci biir. Hmm. fi mu toll ya oh. vous vous lourdement kii mën naa wax ak moom téléphone une heure temps cinq minutes lay wax li ci des yëpp damay déglu léeg-léeg wax ba mu yàgg yaakaar day nalaw fekk mu ngi ci boppam. man ca njëlbéen ba ma leeralee ne ma ku ma àndal <laughs> xam naa fi may tàmbalee yow xam naa fi may yem yow laa xam fi may yem <laughs> waaye yow yow yow nag ñeme nga yàlla. ah xamal wala dara de. <laughs> ah lu wala xam. léegi may takk jabar ji nekk France suba jabar ji eh. xamoo ci dara. léegi bi ci topp mooy. ah taw taw. bi mbiri ñëwee ba léegi sa paas bi daa gën di yéeg. man xam nga sa wax ji temps yëpp yaa ngi koy insister tax nga ñu saaga fi sama day barki démb boo jaay. yow man ngay duula dul kat la de yaa ngi dégg mu ne dul kat la. mbësi yow jabar ji faran yow dara umput la ci lépp ban jour lay ñëw Amérique yëpp nga xam ban jour ngeen xam ba pare ma ne leen dëgg leen bal bi yow nga ñëw toog fii na xamalu ma la dara leen da xamal laalu ko tax <laughs> live bi jeex ñu wax ma di ma saaga de taay ay saaga lañ ma jëlal. waaye dëgg la. ba nga dane defee annonce ba léegi kenn joxatuma respect. dañ may saaga rek non c'est simple da leen di wax ne suma sëriñ moo ma wax ne bu ko kenn xam mënu ma ko waaye bu ñu yëg ci dara. yëg ma lu neex. Hmm. mu ne alors bu ne ko waayam ku sëñ bi daa takk nii wala takk wala. ay waay mu ne ma mu ne ma yow xamoo ci dara yow ay ah waay baal ma de su de sus asuntos non lii neex na mais sëñ bi ma ne. Mhm. mbir yi boobu ba léegi dafa mel ni nit ñi dañ laa gën a bëgg dañ laa gën a topp ndax sa page bi sa page bi i ce que yow seetlu nga ne mu yéege. démb suma live bi nii 700 ñoo ma ñoo ma allah maanaam nit ñi. mais Khady Tipo thank you so borom Sweden. suma ma doom gën a am ci yow cofeel daf ma nopp noppuma ko Khady Khady daf ma nopp noppuma ko. Hmm. Hmm. xam nga moom yaayam suma ma bàjjan la <laughs> yaayam la. moom kañ la dem Suède. moom a toppa njaam fa la nekk fa la dëkk. mais moom mu ngi woon Belgique. Khady Tipo. waaw. Ah. Suède. Hmm. mën na nekkoon Belgique mais mu ngi Suède léegi. wala bokkul xale bi moom mën naa la te dënn bi baax. ah. mbës. ah Roussel laa divan ay dënn jigéen. <laughs> non dama lay expliquer pour ba xam ma xam ba xam même même déjà bi la wax. déedéet ki may wax nii Khady Tipo mooy maye fleur yi nii. moom la Khady photo bii may gis moom la may nduru de et déjà bu dee yow la bind ma whatsapp ma xam ne yow la eh numéro bi fan la. fii États-Unis la de déjà bi photo bii may gis ne déjà déjà non non dañoo nduróo du moom du moom du bi may wax dënd bu baax la yor te nekkoon bel Belgique du moom non non du moom du moom mais kii bi photo profil bi dañoo nduróo dañoo nduróo surtout dagg bi nii xam nga affaire waga waga bi nii mais sëñ bi ma ne loolu noo ko jàng ni la ni affaire bi ñëwee nit ñi gën la bëgg gën la topp gën a abonné gën a ñëw ci say ci say commentaire sëñ bi yow la ñuy topp tey lañ la gën a bëgg message di takkar naa si loolu noonu yëpp tey noo ko noo noo koy dundee positivité boobu. non mais xam nga loolu dafay normal. Hmm. dafay normal parce que noon naa leen man saa yu ñaareel ba tegu ci dafa am ñu conscient am ñu conscient wul ñi conscient lu jaaduwul ci Moodu du jaadu ci Demba du jaadu ci Sàmba mais am na ñoo xam ne moom am na benn commissaire bu deewoona ah, nit ñi ne daf ko mooy yàlla na dem safara nit ñi foofu leen tool mais nit ñi naan tey xam ne ne kii dafa toog ñu dem filmer ko ñi ciy wax yépp seen koy génnoon na den ko bañ bañ bi lii ak lii la seen yoon nekku ci tey leen lay gën a bëgg boo taalee live nag dineen ñëw seetaan dineen ree dem mais buñ sa paree kii leen bëgg mooy li ma nantee tey doonoo yow la ñuy topp mais élection yi jomaay la ñuy wote dañuy <laughs> seetaan suma live ma ruube ba bëri seen ñu xëy wooteel Diomaye ndànk ñëwaat toog naan ma sëñ bi noo ko dunde and life goes on fii nothing is serious maanaam dara sérieuxul ci àddina. Mhm. lépp ci yow la des. dara sérieuxul. Mhm. lépp ci yow la des fii dara mënu laa gaañ lu mooy mu loo nangu mu gaañ la mentalité la quoi mais man moom dama fiy nekk nit ñi di ma gën a bëgg. may gën a yor information yi gën a luur di ko teg ci temps di ko benn bennoo temp nit ñi dem maa bëgg. mais loolu ngay def sëñ bi yow kaa ko tuddee wala noo ko tuddee. ah non man duma kaa man damay xeex injustice. Mhm. maanaam tey su ma bëggee rek nit ñi ñëw déglu maa ngi ay audio yoo xam ne ak ay mbir mun naa koo teg mais duma ko def duma def loolu. mais sëñ bi ah yow parfois man xam na ma natt naa sa intelligence euh, parfois dama lay xoole comme euh, waa ji Thiès politicien ba Talla la non non Idrissa Seck Idrissa uh-huh. maanaam da ngeen muus ba wër seen bopp yéen maanaam seen muus dafa wër seen muus dangeen ngeen muus ba doo comprendre donc est-ce que parfois acte yi ngay def wala yi ngay présenté di nga toog nga xalaat ci nga ne ah lii waruma ko woon def wala bi ma ko defee gaañ na wala nit laa nit nit laa wax donte li may wax dëgg la. Mhm. mën naa gaañ mën naa yàq. mën naa tas mbokk. Mhm. mën naa naa nga nga ci. kaa bu mel ni exemple eh, Momo Dieng. la cas bu mel ni bu mel ni. Eh. day day yëngal kër. day ah, ah, yëngal. Ah. Eh. waa non waa waa baax na tuddatuma turam baal ko tuddatuma turam ay kaa yeneen cas waa du ma bëgguma tudd tur mais comme Dora Gueye par exemple wala Viviane wala yenn cas yi wala aadama aadama Bey yooyu noonu nga tudd nga wax ci ba pare après nga toog réfléchir ne ah man kat ku dëggu laa damay wax dëgg li may wax dëgg la mais dëgg bii di yàq tey aussi te est-ce que amal na ma njëriñ wala waroon naa ko wax di tas kër wala di yëngal sëy wala genre. si dina am kay <laughs> te dina am rek nga ci mën a tontu. est ce que ci àdduna la bokk daal après on passe à autre chose. munoo wax ne yow danga nga mët ba wax doo ci jàngat. ba loo wax buñ la delloowaatoon temps nga waxaat ko ça c'est pas vrai mais da nga koy xam nga noté nga ne ah. lii moom su ma sañoon duma ko wax. wala lii su ma sañoon duma ko waxee nii wala lii duma ko wax heure bi nga jàng mais say nit yu la jege dineen la wax nga nangu di nga waxtaan ak ñoom. ok mais pour may jëflanteel loolu du seen affaire. ni nga koy doxale nii am na ñoo xam ne niñ ko jàngate mooy li aadamoo doon def aadamoo doon def moom nga ñëw dàq ci aadamoo jël palaasam. ñoom. dama leen arrangé wul rek. bu dee c'est kaa loo xam ne yow danga ko doon xeex ci aadamoo di ko ñaawlu rafetlu woo ko tey nga koy def noo koy jàngate man lii laa musa def man kër sëriñ si laa njëkk a dénoncé ne lislaam amu fa. Mhm. xanaa nit ñi dañ koo fàtte. mooy dóore. waaw. man leen lislaam amu fa te ni ñuy tànnee njiit baaxul du du diini. loolu kaa la ma ñëwaat ma ne Sénégal géwél yi politicien ak sëriñ ñoo yàq réew mi loolu kaa la noo la nit ñi leen ko fàtte maag sànneexa toogoon mu ne ma comment ma expliqué ko ma ne ko géwélee fekk ko am xaalis mu taggee ko jikko ju baax nit ñëpp foog ne xaalis la ñëpp wuti xaalis kenn baaxatul Sénégal mhm. politicien mooy ñëw fen la ba pare nga fal ko nga xam ne dalay fen ngeen ànd ci ñu def dëkk bi yëpp fenkat ba ku fenul ku fenul ci politique mënoo gañ réew mi sëriñ si war a jiite diine ji di dundee diine ji te dundaluñ diine tey la jumaa yi gën a bëri waaye tey la nit gën a soxor dàq jow dàq fen katante gi mu kàppo day jeex Sénégal salle de massage yaa ngi ubbi te ku ubbi la mu dox dangay gis jeeg bu ne ling Sénégal leer am xaalis fu ne mu dem te amul lu may bajoom bi bu kër sëriñ si doxoon def seen liggéey sëriñ taalibe yi bëri nii mooy yàlla gi wàññi loolu kaal Momo Dieng takk Zeynab mm-hmm. mu di ko jox xaalis di ko teral mu dem toroxal ko ba pare sànni ko ma koy xeex ngir jigéen Mamadou Massaly katt mama à l'âge de 19 ans biiral ko bañ doom ji doom ji war a jàngi ma taxaw xeex loolu Viviane di jigéen tas am doom metti aada bay di tappalekat ma ne leen kii sëy bi du yàgg def leen attention ëllëg bu amee bu leen xas Viviane loolu mooy kan ba may wax ci dossier Doro yoon tegagut ko loxo ba muy dugg kaso loolu mooy ka musoo gis ma taf nit ne kii daf doon kattante wala kii leen def lii kii leen def nangam su ma yoon nekkul ci loolu vie privée la katt dagan na Sénégal xaraamul katt fa xale ak force jigéen dafa xaraam ci constitution parce que àtte wuñu l'islam nii charia kon ñaan ñu kattante du suma affaire bokkuma ci kaa yooyu man loo gis ma teg ko rek injustice lay xeex bu politique jotee nag ku ma neex lay faral su politique jeexee awma lu ma xeex teg naa dossier bi maa ngi ambiance di waxtaan di kaf waaye actuellement nii nii nii nii nii su ma bëggoon a kaa mën naa di kaa suba ak ngoon bu may wax suba du bokka ak bu ngoon ndax tey la Sénégal gën a lëcc li jaarut yoon tey la gën a ñàkk a jaar yoon te nit ñi den maa wóolu ci information parce que boo ma waxee du feeñ du ma teg sa audio du ma wax sa tur du du ma la enregistré man ngay wax ma traité ko dem su ma yo moo tax ñëpp wóolu man du ma teg audio jàmbur kaa yi ñooy ñëw ci man yenn saay ma réglé ko ci suuf dox ko wax ko ba mu jeex noppi loo gis ma yuuxu ci kaw solution moo ci amul parce que kaw gi fajul tey nii rek balaa may laay fay réglé naa sëy Gàmbi waxtaan ba juboo Amérique fii maa ngi fii réglé sëy Europe noonu parce que man awma intérêt wu lu ñëw rek ma wax ci pour suma compte dund musuta am ci suma àddina ma génnee weeni jigéen wala taatu jigéen ci àddina nii bu góor musuma exposé ñaar ñu doon laalante ne kaay leen wax ni ngeen laalante musuma ko def te duma ko mus a def parce que loolu vie privée nit la duma def loolu léegi nag la ma toog ci xilaafa yi di déranger moo tax ñoom pour minimiser ma den ma naan yi lañ doon bañal aadama ngay def da ngay yàq dari gor xam nga ñen ñoo koy wax ña ànd ak sam arrangé wul kan ci sénégalais mooy nangu li Mamadou Massaly def mama ñu def ko sa doom jël sa doom à l'âge de dix-neuf ngay kilifa tiye ko di katt ba doom ji màgg war a am kayitu juddu dëkk ci dëkk bi nga bañ ba pare di tuumaal daam seen kan la neex ci ñun ñi may déglu ma taxaw di xeexal jigéen bi néew doole ñu ne dangay kaar am ñu osé nag ba naan àqi masali moo la dal masali mi nekk imam nekk kilifa ci réew mi kat jigéen ba mu biir nga daw sa responsabilité may xeexal jigéen boobu ak xam moo ma dal Momo Dieng takkam Zeyna. doo bàyyi Momo Dieng mu koy jox alalam. nga toog fi naan saf na ba noppi dara safagul te kenn du ñuus a sàppali munoo feesal COP 21 tam mayoo tike nga ne da ngay dem arena saf na ba noppi kenn nag ñu naan axi kooku moo la daal la ma doon xeex ci Momo Dieng démb tey laa koy gën a xeex parce que xeex bu ànd ak principe la da gis ma taf kooy Momo Dieng. waaw doo bàyyi Momo Dieng ñu jàll ci leneen. da nga gis ma taf ko. sànq ne woon nga jàll loolu jàll. ko taf ma ko <coughs> te maa ngi lay wax dara. muy lan. suma communication bi ci xewi Viviane bi lam defar doo ko sax xam mais fexe ba bu mu am ndam ëllëg. Mm-hmm. nen fexe ba suma wax ji di ay duul yu tooy rek. ci ñaar yi laay daanale ndax suuf mat na. mooy eh? xew bi. kon man. may tollalee kii ak kële. <clears throat> xew mi xew mi. xew bi. neex na. allahu akbar. jaar na yoon. riche na. Vivi ndey bu mat ndey la siggil na doomam sagal na doomam ay xaritam wuy neen ko Zena sànce na. Mhm. aada day sañ-sañ na mbokk yi defante neen li ko ëpp solo nag may gu njëkk may gu sax da koo gën xew bu neex sëy bu neex da koo gën nit yaa ngi ubbi seeni gët di xool neen fexe ba teraanga yañ joxante ci ay or ak xaalis neen ko joxante ci wax bu rafet bañ dóor bañ a infidèle defante dëgg waxante lii rekk la xew bu rëy sëy bu da koo gën xew bu neex sëy bu neex da ko gën may gu njëkk may gu sax da koo gën. dégg naa dëgg. lii rek la mais xew moom ku ne neexut da ngaa iñaan sañse neen mbokk yi teew neen xarit yi ñëw neen maanaam Viviane xew na ba indi néew xam nga kan mooy néew. Pape Cheikh Diallo. moo tax ma ne ko Pape Cheikh daa ressuscité wala. <laughs> est xam nga ne Pape Cheikh juddoogul. Hmm, hmm. maanaam lim judd dund ni da koy dundaat ci ay at. maanaam ñi ñëpp moo leen di suul. Pape Cheikh Diallo kay man. dee gudde. jàlloo ak Mbaye Dieye Faye seen yax yi baax na. waxuma la Mbaye Dieye waaye Pape dafa dafa fan fani Serigne Fallou ñaari yoon lay dund. man <laughs> la malayka dee bi liste bi ñu ko jox Pape Cheikh duggagul. macha allah pare man Pape Cheikh ci baax gi ci dal gi ci tey gi booy na teeyul moom ci mën a nettali gi ci bëgg kaa bi comme ñun. nettal nettali moom da koy def day nettali. ci mën ambiance. ba pare day waaw ci mën émission. Hmm. loolu moom stress loolu may na man foog na ni. ci na ci na mu mel ñu ñu koy rayal. duñ ko ñaanal gudd fan. wéer ak wéer Pape Cheikh di nga dee waay ah, Pape Cheikh Diallo ko tàggee yàlla defal la jàmm. dooma daan Diallo jéer bi ci topp. Hmm. Macky Sall mi doom ji doon takk jabar ñàkk ak teewam moom noo ko jànge loolu politique ah, lu tax. dafa bàyyi la di. kam bàyyi lay parce que moom bu ma la joxee suma cër. yaa ma war a teew. Ah, fii rek la ko teg. waaw dafa bàyyi la. kooku doy ko. ñam bàyyi la dem takk xew bi neex. félicitation suma rakk ji. amul daraay politique. ah non non hmm, dama yaakaaroon ne daa 100 mètres sax day bañ gaa ñëw gaa yi teg ko loxo wala dara. Macky la. Hmm. ku ko sopp sa duñ la teg loxo rawatina Macky Sall defut ci réew luñ koy téye hmm. mais luñ koy nammee ak rek la def ci réew luñ koy nammee ak luñ koy tiitaroo rek ba maanaam bàyyut fi gàcc ndam rek la fi bàyyi doomi Amadou boobu bàyyi Amadou jàmm rek la. bi may jeexale. Mm-hmm. boobu ba léegi maa ngi déglu waxoo ma benn yoon félicitation ci coupe d'Europe bi. non mënuma la ko wax rek dama feebar dama feebar. xam nga xam nga lamin Jamal. non. Harry xam nga Nico William Junior Williams Junior Nico. Fadden. Lamine moo. moo dëpp. suru xalal. raay ni ko dugal. ko bi mayno. Angleterre Angleterre. Kyle Walker. Oh. John Stones. mbaa mbaa yëg nga ni Espagne. géej gi. Espagne premier match ba final. daa yëpp da koo dóor. man ñooñu laay dañ koo dóor dañoo dóor yëpp. match man ma benn xale bu xiiboon. nga xam ne lañ koy dañ koy bàyyi muy dem rek. parce que oui. ba pare sëñ bi soo ko ma noxal. merci merci sëñ bi naan maan. bu bu Angleterre dóore bu Angleterre dóore ñu live man ko kon kay baal baal ma nekk ci leneen te xam ne te day dóor. waa kii du copain Cheikh Ahmed. mës mës ne ko maa ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam bu baax di ko di ko maa ngi koy masawu bu baax a baax a baax. Mohamed xam nga léegi damay xool ba mu yàgg ma yàlla bu dee bii sama àq la bu yow nga rocciwaat sama àq bu muy demee. bu dee sama àq la na rocc. loolu rocc parce yàlla bi yàgg si amiin <laughs> barki Sëriñ Bamba Mbàkke boo ko defutoon lii boo dee dem safara maanaam dama ko bëgg mais moom amul jom ci man wala lu mu gaaw gaaw dugal ko nee na bu dee a na na ko yàlla rot non ay tiyam danaa bëgg ba amul ci yow sago <laughs> danaa bëgg mais sëñ bi liñ fi amoon ci temps jeex na. yàgg rek mu message ma ne ma góor du <laughs> nga lu waroon a def daa waroon a bàyyi bëgg a déglu wax déglu ko ba pare bu effacé ko. góor du tool <laughs> koy bind. <laughs> bind ma ko inbox. tiktok message ma ko whatsapp ma ko góor waaw. dama lay laaj benn réew mu ñàkk jom réew mu ñàkk jom waaw ñàkk xam seen bopp hmm. ñu ne ñoo am diine ji am sëriñ yi gën te nangu neen lu waay def yàlla daf la koy fay lu dal nit àq la mais réew moomu am na ñu amul ndox am na ñu amul hôpital yi faju am na ñuy xëy duñ am dépense dàquñ ci àdduna bi yeneen réew yàlla leen réew moomu noonu ba tey question bi pareegul. yow ban réew ngay wax yow. damay laajte ban réew la maanaam ban réew ci àddina. non dégg naa sa laaj kay xaw ma ko xaw ma réew ma xaw ma réew ma Oh, ok dama doon foog ne ndax di ko xam. xaw ma ko. Hmm. te laajuma la ko tamit laajuma. même boo demee ci kër sëriñ ci ñuy wax ne sax mooy dëkk yu sellii sax da gis ay ndox yu duus di romb ci mbedd mi. ay weñ di la topp tàngaay ndox ma naqari. sëñ bi liñ amoon ci temps jeex na. léegi nag ñuy am nguur goo xam ne dañuy rey nit. nguur gi di leen sonnal ba ñuy génn di reyante xeer may laaj ci réew moomu àqi kana leen daal waxuma ah, bu dee yow àq la àq moo la dal kon ok maanaam damay laaj ci réew moomu nga xam ne ñoom ñu ne yàlla ji gën lañuy ñuy jaamu dégg naa dégg naa laaj bi ji gën leen am seen sëriñ yi ñoo gën sëñ bi jarul laa laajaat laajuma la waaye seen football du première. laajuma la daan ligue des champions di seetaan espagnol yi. ñi dàq football ci àdduna duñ leen fa compter. daray àdduna lu neex amu fa. ku ci gis mu ngi daw moromam la ragal. bu kii taxawee yàq kii kële yàq kële jëwante. même ñi ëpp alal ci àdduna sax boo leen doon compter duñ génn ci réew mi. réew moomu noonu nag damay laajte ak kan moo leen dal. ba tali yu baax amu fa. ak kana leen dal ba niveau éducation bi da ngay dem ba am trente cinq ans nekk université ak kan moo leen dal ba nguur guñ am rek dañuy génn ci mbedd mi di taalakalak ak kan moo leen dal ba tey dafa am oto yu manque du day ak kan moo leen dal ba amuñ wifi sax ci mbedd yi ak kan moo leen dal bam jaral leen ci ay gaal di dem ci réew yi jàmbur yi pour mën a tekki ak kana leen dal dañuy nekk bitim réew mais soo leen nekkaa ma yóbbu leen seen réew ñu daw de réew moomu ban réew la. ana ma tëj commentaire yi gars ko réew moomu ban réew la réew moom la man xawuma ban réew la man lu ma def ba lii de aw loolu lire si commentaire yi non damaa laal sax commentaire yi leneen laal laal

Eh, kon baax na. gisoo Sénégal. wóor na yàlla Gambie laa fiy liir. ah gisoo Sénégal. Gambie da liir Gambie. Gambie doo <laughs> lañ fiy bind la woon kon gërëm naa la sant la. Gambie Gambie. Gambie ak ay reetaan Gambie. Gambie dama doon laajte rek. ah man kay maa tax maa ngi lay liiral Gambie. Gambie te sa diggante yàlla gisoo benn yoon Sénégal. diggante yàlla Gambie lañ fiy bind. Ah, Gambi am na ku fi def drapeau Sénégal nii Gambi Gambi Gambi reetaan. yàlla baax na. beneen ga Gambi Gambi ah waaw baax na fii day Gambi rek lañ fiy bind sa côté moom ñu ngay bind Gambi Sénégal Gambi Sénégal Sénégal Sénégal Gambi Sénégal fii moom Gambi rek lañ fi lañ fi bind. baax na sant naa la gërëm naa la yàlla na yàlla defal jàmm maa ngi feddali cofeel gi. am allahuma min ma maa ngi maa ngi feddali fi mu toll delluwaat nañ wala ba léegi. non dama lay solalaat sa malaanu kiiraayu. taalibe taalibe ok kon maa ngi feddali maa ngi feddali sama kóllëre di yeesal sama njébbal. jërëjëf sëñ bi di la wax yàlla na yàlla taxaw yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi. ku lay xaar yàlla na xàddi. amiin yàlla na yàlla màcc gën a màccal xel mi. amiin a yokk mën-mën gi doo lay poos ak doo lay ndigg. amiin hmm, bi gën a dox. amiin ngay ngay bërëgu muy dox di prier muy dox. Mhm. te di ma branché sëñ bi nag branché ma. yokk ci li may prier muy dox ni yow branché ma. te sëñ bi. billaahi wallaahi wa maa ngi koy ñaan ci barki guddi guddi euh, kii bii. Euh, waxal tam xarit bu ko wax ci arab tam xarit ashura <laughs> sa diggante Californie li ma ci bëgg sama xol bi yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def